li ma sentir laay wax mais doo ko waxee nii nii nga koy waxee reviens sur ça wala sa j'aime pas boo ma ci naree sonal nag bloqué euh, PJ ma ñëw ci yow xam naa bloqué naa a waaye demoo déglul fii bu baax yàlla da nga mën a ànd ak moom danaa xam nga tey lay woy Ousmane Sonko tey lay woy Ousmane Sonko mi jël dëgg ak njub rango Sénégal yëpp war nañu manko jox loxo Sidina Seexu Sonko Sénégal yëpp war nañu manko ngir dimbale Seex naa Sonko Pastef xam nga way buñ koy wax Sénégal <coughs> xam nga mooy lan PJ Maam Ibra Xuja Mbay moo jur sa baay mam pate biram jur sandai biram xuja pate pate sona pate, faram pate mbar fo jur aji xuja xaji xuja jur diw ak diw loolu moy way ci yeen tag say mam loolu amul njiri mais deglul bu bax fi limu wax senegal yep nañ manko beug projet ousmane sonko senegal yep nañ manko tay nga taxaw wax ko ci mi mayul nga am sens ma faram patel la li ci am solo pour nga comprendre ke ni man limay wax di ci and ak xadar da ko wax ci way te bu ko waye ci rew mi ñu japp ko duma ko kon tay sama live bi du am wax ñaar rek lay indi way wi la leen di indil ak indi leen lu Ousmane waxon ak andi jigenu Casamance ak wax leen te ñom bañu waré atté ji mbir mi fofu def nañ seen wareef tay parrainage lañ wara jëri fan lañ ko wara jëlé dakaru ñan ñoy wa dakaru lool lay indi ci ubil leen nit wax nak la fi bañ dikté ma lu def lay bañ wax ma sa musiba ba pare nan ma no ñoo far xam nga yeen da ngay raay raay raay ba mbuqal ta man magam yar da ngay ñew di raay nit ki diko ko raay di raay ba ne ko kuc wala ñew ci wetam diko raay ba kuccal man yoy kenn def hey hey hey ñoo far man doxuma ci est ce que voilà falaa yam nag dafa am fu ma jëm way wi dafa wax ak kilifa yi wax ñi topp Ousmane Sonko ak seen jikko ñi topp Macky ak seen jikko ak mbon gi mu fi def ñi ko topp yépp nag tuddul turu kenn waaye wax naa ak ñoom waaye ca waxin wax jox ma yóbbante ma di ko andi nga ne ma bul ko def demal ci nangam dama koy def Eh, ana waa kër Sonko yewi askan wit nañu lonko and dimbale Seydina oh, Sonko góor piir mooy Seydina Sonko oh, góor piir mooy oh, Sonko a wóor moo ngor rango ak a wóor moo ngor rango ab rek mooy bañ Sonko ab rek mooy bañ Sonko naa fekkit day bañ Sonko naa fekkit day bañ Sonko naa fekkit day bañ Sonko dana bañu sonko ko xamulit dana bañu sonko ko bon sew day bañu sonko ko bon sew day bañu sonko ku fi songko, lëjële bañu sonko ku fi lëj lëjële bañu sonko ab tapet ku fi lëj lëjële day bañ sonko ku alalu nit ñi nga askan wi yépp ñan ñoo songko, tey Ousmane Sonko ñan ñoo ko topp ñan ñoo koy soñal ñi fi sàcc ñoo sonal Mamour Diallo mo commencer lu mu sàcc quatre-vingt-quatorze milliards may ci Bass Abdou Khadre may ci këru diine yépp ñooñu ñoo koy saaga est-ce que je est-ce que yéen a may dégg xaaral ma làkk ay olof sax xaaral ma làkk ay olof est-ce que yéen a may dégg wala déet moo tax lii boo gisee ne aw way la rek wax la parce que ku ko waxee ci réew mi ñu rey la waaye moom am na façon bu mu ko jàllalee mu jàll day bañ sonko sonko ab tapet day bañ sonko lorkatu nit day bañ sonko lorkatu ñi fi topp Macky sàll yépp nekk ci réseau yi di wax mooy ñan tapet yi nanguwut a dem liggéey tapet nag bu ci xeex rek tapet mooy nangoo ku nanguwuta dem liggéey bëgg xaalis bu yomb kooku tapet la tapet bi nga xam ne or zircon diamant li nekk ci réew mi yépp ñu ngi ñu ngi ko bëgg a moom Baye Fall yi ay tapet lañ ci lañ bokk parce que ñoom waxuñu ci ku ci waxul rek tapet na ci nga bokk kon waxam bi dafa généraliser déglu leen ko bu nit day bañu sonko raykatu nit day bañu sonko raykatu nit day bañu sonko ba ngeen dalee dégg dee ba léegi ci réew mi ndax waa Pastef ñooy rey wala ñu bañ Ousmane Sonko ray ay raykatu nit lañu wala déet Antoine Moussa nervi ak ñi ñu yebal ñuy rey ak sëriñ si leen di seetaan deug la wala du deug limay wax te ko xor bañ sonko sonko te ko xor bañ sonko sonko ana Barthélémy Dias ana Khalifa Sall ana opposition bi wa parrainage di hor kat yi il faut que ñu bañ Ousmane Sonko ana serigne si nga xamne sen seen taalibe yi rey lañ leen ci rew mi ay kat lañ ñu kon ki dafa wax ak côté wàllu gi wax ak intellectuel yi wax ak askan wi piir nag day bañ sonko sonko mu piir day bañu sonko sonko mu piir day bañu sonko sonko kon xam ngeen ñi bëgg sonko sonko kon ngeen ñi bëgg sonko sonko ku fi bëgg dëgg da bëgg sonko sonko ku fi bëgg dëgg da bëgg sonko fii ku fi dëgg da bëgg sonko sonko ana ñan ñoo gën a bañ sonko sonko ana ñan bañ sonko sonko ku ci gën a bañ sonko sonko Macky Sall mu méngoo Macky Sall mu méngoo ñan ñoo ko fi tagg ñi mu méngool ñan la génne naa jukki naa ci ki damm tànku yàlla jukki naa ci ki ko làq ci ginnaaw sëriñ tuuba jukki naa fi ki am fans club Youssou Ndour numéro un président fans club Youssou Ndour bu tiwaawoon génne naa ko fi génne naa fi borom gaarawaalekat bi ki naan lii wax dinañu saaka sama bàyyi ñan la méngool xarita bi ñooñ la bon gën a bañ sonko ñoo gën a bon gën a bañ sonko ñoo jël dëgg ak njub tongoo ñoo jël dëgg ak njub tongoo moo tax duñ mën a bëgg sonko moo tax duñ mën a bëgg sonko Macky Sall ak gaa yi mu méngoo Macky Sall ak gaa yi mu méngoo ñoo jara bañ ñoo jar tongo ñoo jara bañ ñoo jar tongo ñoom ñoo saytaane lonko ñoom ñoo bëgg baax ñu ni nañu manko ku ci bëgg baax ñu ni nañu manko nañu fexe gaaw faagaagal ko mbaxal ak ne nañ dal ko mbaxal ne nañ dal ko naanu seen ndox bañ sonko naanoo seen ndox sonko waaye yàlla na buur xaar sonko yàlla na buur xaar sonko waaye yàlla na buur xaar sonko waaye yàlla na xaar sonko Macky na buur yàlla xaar sonko mooy yéen ndaw yi yéen ñi Ousmane Sonko yaakaaroon ne ci yéen la dépendre candidature am yéen a génnul xeex moom mu taxaw amatul doole muy ñaan ya buur yàlla xaar ko est que dégg ngeen ma que dégg ngeen ñoo bañ set ndax seen gàkko sidina Ousmane Sonko maa ngi ñaan na buur xaar ko maa ngi Sonko Ousmane mu Sonko Ousmane na tëj noon yi songo yàlla na tëj noon yi songo seex oustaz Ousmane Sonko seex oustaz Ousmane fal sonko yal na ko buur sàmm te fal ko yal na ko buur sàmm te fal ko yal na ko buur sàmm te fal ko ak rik ñun ñëpp nañu Afrique ñun ñëpp nañu manko manko bu fi kenn laal Sonko bu fi kenn laal Ousmane Sonko combat bi kat du bu Sonko combat bi kat du bu Sonko combat man nee wii seex Sonko man nee wii seex Sonko man wii seex Sonko Murtani mani Sénégal lonko ko lonko Mauritanie Sénégal lonko Afrique nañ jàppale Sonko Afrique nañ jàppale Sonko ñun Gambia nee nañu Sonko waa Gambia nee nañu Sonko bam des ki fi Macky Sall méngo ki fi Macky Sall méngo waa Gambia nee Sonko bam des ki fi Macky Sall méngo junji kat jëli leen xat mu naa fii maa bëgg sonko xat mu naa fii maa bëgg voilà à la xeex bi ngay wax mi ngi ci biir way wi waaye dégguloo fi mu ko waxee xeex bi ngay wax nañ mànkoo xeex bi du xeexu sonko PJ yow laay waxal de xeex bi du xeexu sonko léegi nag dañuy ñëw ci débat bi xam nga way wi wax na li ma bëggoon wax yépp léegi dañuy ñëw ci débat bi débat bi mooy Amadou Ba nee na leen toog leen ngeen déglu Pastef damay laajte ndax Ousmane Sonko moo ko santaane waaw wala déet loolu la ñu wax Amadou Ba nag mooy doomeraam bi nga xam ne moom la Macky Sall bàyyi ci biir réew mi muy lambar-lambari mu jàpp ñoom Basirou Diomaye ñoom ñëpp ne waxul Biram Souley waxul ah, ah booy booy booy bi mi ngi doon wax ñu li Ousmane Sonko doon wax moom la wax léegi nañ dégluwaat li Ousmane Sonko waxoon ndax moom la wala du moom damay laaj rek. li ma leen wax dafa leer gis nga Macky Sall. rapport de force la xam-xam. xamul leneen. il faut ne dina ko arrêté. ni mu koy defee la koy defee ba mu jeex joxe nañ instruction ba conseil constitutionnel nag. les soi bu ñu jógul jël suñu responsabilité jàmmaarloo moom. li muy def dina ko def daal di ëllëg assemblée nationale bi ma tagaat ko xam nga mi di fi wax rek saa andi ay preuve wóorut mi di fi wax saa andi ay preuve day mel nga taxaw ci échelle bu taxawul ci kaw suuf da ngay preuve Amadou Ba ne ci mi di lambar lambari une deux trois mu génn bo démé ci page ma ngay changer ay profil ak changer wat Amadou Ba di wax si jëm si Pastef ba tok TFM dina ko indi sundu lima li ma leen wax leer gis nga Macky Sall xamul waxtaan xamul waxaale rapport de force la xam xam leneen il faut ne leen la ko arrêté ni moy dédé la koy defee ba mu jeex joxé nañ instruction ba conseil constitutionnel nak les soi-disant sages bu ñu jógul jël suñu responsabilité jàmmaam ak moom li muy def dina ko def daal di assemblée nationale bi lii ki leen ko waxoon tey dañ ko xañ wax est-ce que bu continuer woon wax li Amadou wax ba di wax Amadou Ba bu Pastef doomeram ji doomu xaram bi mauritanien bu dëgg ndayam bi li wax est-ce que loolu Ousmane Sonko di wax ba damay laaj question parce que Ousmane ba muy mujjee wax lu mu wax ndax pare ngeen ndax pare ngeen ndax pare ngeen ngeen ne ko waaw bu ñu tàmbalee dootul jeexati du loolu la wax dem ñëwaat dem dëkkam wan leen exemple ñëwaat damay dem dëkkam fa nga xam ne fa lañ ko kiiwee démb dellu siwaat Amadou Ba nag mooy wër tere Youssou xaaral mu indi leen yu sundur J'ai démissionné parce que c'est un compagnonnage. Moi, j'ai fait de la politique par accident. Moi, en 2012, j'étais candidat, on m'a invalidé. J'ai parlé avec Macky Sall, il a gagné et il m'a demandé, par mon expérience et mon parcours, de venir l'aider dans le gouvernement. Je l'ai accompagné. Et je pense que personne ne m'a entendu parler de troisième mandat et je n'étais pas d'accord. J'ai posé une question à Macky Sall un jour entre nous. Il dit, Président, est-ce que euh, vous allez faire un troisième mandat Vous voulez vous présenter Pourquoi vous dites ni oui, ni non Il m'a dit, si je dis euh, oui, il y aura des, des histoires, des débats à n'en plus finir. Mes cinq ans-là, je ne vais pas bien travailler. Si je dis non, j'aurais même peut-être des problèmes pour joindre des gens. Donc moi, je lui avais euh, donné ce crédit-là en disant que je vais regarder. Effectivement, ces cinq dernières années, Macky Sall a mis le turbo sur les infrastructures. Si vous avez été à Dakar en 2012 et revenir à Dakar en 2022, vous voyez qu'il y a eu des choses. Et il a eu ñoo ko nyoko ñoo ko déggandoo dégg ngeen ni yuusu mbargaan xaritu mbay si mansour première fans club mbay si mansour president des fans club de yuusu nduur borom dabbe wu yoo yaay way dabbe wu yoo aatu ndatata est ce que dégg ko Youssou Ndour bu nekkee biir Sénégal olof lay làkk Youssou Ndour mi moo waaxu ba ci Abdou arrangé ci troisième mandat Macky arrangé troisième mandat Youssou Europe français ne musul d'accord ci troisième mandat candidat qui mom la Amadou Ba di dem ci bi di ne ko bul Pastef nan ex Pastef Amadou Ba d'accord question la la de question poser posé laaj a wax ak parce que man ñun duñu ay dof ñun duñu ay dof parce que vous, greffier bi ngañ dem ba munu fee nekk taxaw ci allié bi kii taxawoon li kii di wax mu jiite ko dégguñu Amadou Ba gis nga Macky Sall xamul waxtaan xamul waxaale rapport de force la xam xamul leneen il faut ne la ko arrêté ni mu koy defee la koy defee ba mu jeex joxe nañ instruction ba conseil constitutionnel nag les soi-disant sages bu ñu jógul jël suñu responsabilité jàmmaarloo moom li muy def dina ko def daal di ëllëg assemblée nationale bi man nag for naa ci weewu béy di naxante ak yéen te Ousmane même élection yi kaso bi la koy fekk lenn rek ngeen mën a def te ay kilifa ñoo ma ko wax seen biir réew mi tànk ñu ngi taal téléphone courant lekkukaay ak yeneen ak yeneen même taal ko par cachette ak seen kër yi léegi ñu lijjanti problème Ousmane Sonko mu féete boor yéen nag nee ngeen Macky Sall bu defee remplaçant fal ñu bees day li day régler problème déedéet problème am lay régler ñi mu dindi li ñuy def dafa yeex mu indi ñaar ñi gën a doomi xaram caga bi ak góor jigéen bi Sidiki Kaba borom Mire la Lamentin ak Aïssata Cagataal Sall dulkat bi gën a bon ki jiiñ askan wi yépp lii sànni xeer yu lay saaga parce que nu mu nu ñu mën a xeexee rek dañuy xeex mhm. ñun on xeex la bu la mënta sànni xeer yu bënta lay saaga parce que nu mu nu ñu mën a xeexee rek dañuy xeex mhm. ñun no maroor on est des combattants de la liberté. jàmm le ñëpp bëgg. mais bu ñu demee ba nga xam ni li ñu wax surtout surtout mais ministre ministre de l'intérieur, intérieur. toog ce sont des forces gis nga ñi ngi foowee ay par yoo xam ni. Ah, ba pare di bàyyi mu jàll. loolu normalement wajid ji par hmm. force mu et il doit démissionner. oui neexoon luñ <laughs> le ministère le ministre de l'intérieur par force il doit démissionner parce que li mu ah.

Gigi Bayil Amadouba, Pastef il fait un travail colossal il fait un travail am nga sens yow il faut ma génnewaat la yaa dama fagoon ne danga may diingat man dama bëgg bu ma sama réseau bii di dingat. kuy dingat. bul ma diingat ci samay live dangay dem tal. nga défendre ki may waxal ay argument laa teg nga dajji argument yi foofu laay d'accord est-ce que dégg lima wax man suma ñewé fekk wax duma dem ci live ba muy waxé di am lu may wax damay dag vidéo bu paré maa ni sama biir kër jël sama paaka ak sama cour gu ndaw was di fajet di was di fajet di was di fajet ba mu mat ma dagati sam woo xaj ñu ñew ma jox leen ñu lek du non la koy def keneen ak keneen non dama jël exemple rek nak na ngeen mën a nag naka yem <laughs> ma baal leen ma nag gaaw ngeen a mer trop voilà ñu yegale Sankara man kay yeen dama leen di teg rek duma fi nekk di wax sax tey émeute ñu toog ci ministre euh, de de l'extérieur woote France 24 uh-huh. daal ne ce sont des forces occultes dëggal ko keneen ki génn na ministère de la justice ne ce sont des lutteurs qui n'ont eh pas de combat président de la République génn ne je vous ai compris la jeunesse kan moo ci dul wax dëgg ci ñoom uh-huh. donc nag la question qu'on doit se poser c'est ça dëgg la

jàmm la ñëpp bëgg. mais li ni ni ni, sen doom à l'étranger nekk fa dans les plus grandes universités. sen jabar yi nekk fa bu accoucher sax ñu nationalité sénégalaise américaine war wara euh, war canadienne lañu ñuy dem wuti. léegi bu ñu wëlbati ko jël doomu jambu di len jox ay Jakarta donc y a un problème il faut que ça s'arrête. voilà du dégg ngeen limu wax bu baax ñi mu Aïssata sal ministre de l'intérieur la xaw ministre de Cotleur. moo kon de l'extérieur di wër di dul ci all bi mom mo ne woon bés bu ba tollu ci am nañu ay pexé yuñ koy lijeenté est-ce que yéen a ngi may dégg motax pal gi mak sala fal de wul Sidiki Kaba nek na ci armée bi yor gaay gaay ba am fa ay xarit xam kan moy kan mu andiko ko dugal ci côté fi nga xam ne fa la ñuy faagagale Ousmane Sonko Aïssata Tall Sall moo newoon bu jotee bu demee ba ñu toll ca est-ce que may dégg est-ce que may dégg ci garde des sceaux yéen may dégg dafa newoon buñ demee ba toll ca xam nañ niñ koy defee ak nuñ koy lijeenti waxtu bi mu war a ñëw toog ko Antoine wor lo na ray na mu wara wara ray nap na gaay équipe dem équipe tok kenn ku ci nek bo ñew ak liggéey bi ngay def Antoine ray ak nappé bi tax ngeen tok mom la fi nekké won moko Moussa Fall légui Antoine wacc na kat bi nag mooy la laxat kat bi moy ñew est-ce que d'accord ngeen li ma len wax pour wax len ne fi mu ni tooñkat bi andi xaaral ñoo di ko tooñkat bi ba pare doog a wàcc dugg nag ci ndakaaru gi ñëw dem yuusu wàccale yuusu Ndour moom duulkat la rek Amadou Ba moom mu ngi këram nañ andi kii. nañ ko ne ko lay yërëm jaam yi. moo ñëw te moo ci ñi fi ne te dana fi jógee. yàlla yi. nay jéggale nay jélale waaye pour kuy tooñ ñooy jéggale. koo waxee yoon kuy tooñ ñoo jégalee nañ wax ak moom kilifa yi nañ wax ak moom bu ñu waxee ñaan li wax ca suuf looy wax ci suuf dëgg kenn du ko wax kaw kaw nit dëgg da nga koy wax ca kaw fa man sa affaire yuumi man sa affaire yëpp ko boo waxee ñaan léegi nañ leen naan jàmm waaye te jàmm li gannaaw yàlla yàlla bi ñu wootalee nii yàlla ci loxo kenn la ko toj waaye léegi nañ nekk téye sa loxo defal jàmm wax ak jàmm defal jàmm waaye boo waxee ñëwee nañ ñaan jàmm te jàmm ji gën a yàlla ci moom la ko jàll opposition bi lu amuñu lu wax waaye ki nga xam ne boo di wax ak di jëf nag ko que sëñ mooy mooy problème bi nañ wax ak moom réew mi dafa soxla jàmm réew mi dafa soxla jàmm lii ñu naan ñi dimbale kan la dimbale dëgg la nee nañ mi tabax dëgg la ay ana pont yi ana tëli yi waaye loolu dong daa am ko jiitu li jiitu leen ci mooy at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawf nit ñi da ngay fexe ba seenu dundu doy fexe ba seenu dundu yomb fexe ba seenu fit dal fexe ba seen alal ñoom lépp luñ luñ moom kenn ko jalgati boo doxi guddi ñu fit naa la boo tëddee guddi loo am ñu jël ko lépp loo jël jël benn fukk ko jënd bu lay jotee jiwu doo am nee na juróom-benn fukki milliards la joxe woon daaw yéen ñii kan moo ci am jiwu daaw juróom-benn fukki milliards kan moo ko am tey jii nee na téeméeri téeméeri milliard juróomi ku jël ko milliard ku si amul dara téeméeri milliard di ci dara bu fekkee génne ko anamu ñu ngi ko jox ay nitam képp kuy nitam ku la neex tooñal ku la neex saagaal loo neex waxal loo neex defal ku dul moom nag loo mu ci dara te kilifa yi naan dañuy ñaan jàmm waaye bu ñu nee ñaan jàmm ki yàlla jox nag maanaam léegi teg jàmm ci loxoom nañ ne ko a eh, bo sa bopp sa a yërëmal jàmm yi dimbaleen bi néew yi jàpp leen leen waaye mi ngi tabaxi pont mi ngi tabaxi tali waaye nag yow mi ngi fitna fitna nit ñaa ngi xiif mu ah lépp a ngi seer ku wax ñu àtte bi ñu ko àtte ci yoon ku wax ñu ñu ñu lu tax ngay wax luñ bëgg rek mooy nga wax ci moom ba mu tax comme la nga noppi. man day li a gis mooy képp kilifa moo xam ilimaan nga moo xam borom xam-xam nga moo xam kilifa diine nga nga war a wax te boo waxee mu jëriñ te waxoo bu yemal xiyaamati ko lay sa borom. bu mm. yemal amul kenn kilifa diine koo xamee ni danga naan yëgu ko da nga koo war a yëg fii daa Omar la ko loo sa waxoon ne ko maa ngi di tumaraange maa ngi sama njaboot te lay te lay kilifa te te bu kilifa président bi ne fi mu ne ko yëguma ko mu ne ko da nga ko war a yëg a yëg lii xew waroo a doon bu ne yëguma ko yomal xew ñu ko borom koo war yëg daa war a nekk ci wetam ñu koy yëgal lii xew mu tee wax lam ca war a wax bu waxee ci suuf mu jëriñ baax na bu waxee ci suuf mu wax ci kaw ndaxte am ah, ak am na benn paawu doomaram démb paawu doomaram boobu laxaskat boobu tayle tayru xaw ma tayru tayle tayru tayle moom la fi toog di tagg démb ba Amadou Ba ku bëgg a wote na nga Ba maa ko wax. yaa ko wax yaa fi waxoon da ngay tànku yàlla tooñkat bi moom la fi payi topp di ko tagg kii naan ko indi nga futur président kële naan ko sa loxo set na xale yi tukkeetuñu seen payi tappalekat yi tappalekat yi lii dalañ fi nekke lii dalañ fi nekke voilà léegi nag ma ñëw Casamance gi nga xam ne fa lañ demoon atte ji fa lañ demoon atte ji Casamance fa lañ demone atté ji mbiri Ousmane Sonko ñi dañoo def seen waref ñi ñi day bokku day bokku waaw day bokku day bokku lool rek ngay dégg day bokku forcé wala wala wala da ngeen loolu da ngeen lool da ngeen da ngeen voilà dégg ngeen ah yéen a ko déggandoo day bokk day bokk day euh, ñu xool ndax euh, gars yi li ñu def dakaar dinañ ko def fii ndax dinañ euh, recours bi nga xam ne moom la avocat Ousmane Sonko koy def recours bi nga xam ne moom la Ousmane ko def ndax dinañ ko accepté waaw wala déet regal naa nag buñ ko accepté wul fii moom yaakaar naa dina tàng quoi dina tàng lool parce que jeunes yi ma gis nii nii sont déterminés te dafa neexul tamit dafa neexul. ki nga xam ne moom mooy seen yaakaar ki nga xam ne moom bu am nga xam depuis kañ lañ ko commencé porté ñu dem ba à la terminus ñu ne la du bokk loolu dafa dafa dafa neexul dafa neexul. voilà ñooñu ñooy jigéenu Aline Sitoé jata, Diatta Alioune Sitoé Diatta jigéen yaa ngoog talaatay ndeer ñu ngi nii talaatay ndeer ñu ngi nii Casamance ak doom ñu jur doomi ndeer yi ñoo nekk nii. doomu ndeere nañ leen dem nag doomu fi nga xam ne fa lañ doon jëlee parrainage yi ñooy ñan ñi nga xam ne fa lañ waroon a jëlee fichier parrainage bi ana gone yi ana gone yi. 75 fecc 75 fecc de 1960 à 2018 fecc yi fi mës a jaar lim naa ko fii. bon euh, nee na fecc jaar yëpp. ndaga suñu xel jëriñu lenn du ndaw rabin baara mbay ceebu jën ventilateur mbaras gumbe tanks day bonde Moulay Cëgin Kiss Mbàcc Jalgati Mayonnaise Ras wan ma pointure lëmbal moto rawtaaj lëmbalu naar yaaba yaabaleen maana gowaana si mbañ-mbañ yuusa salañ-salañ ëppukaay caxagun blokaas blokaas noonu a ah, mbay jey fay la 75 fecc 75 ko uppa jaam kaay wane ko mboroxe mboroxe daanu rab bombong mbërëng barigo wokkal kobaay kooba yi taq sirip ubbil mbarka njaay bu caaxu bu caaxu tëyëx këccëx mba li mu mbalu jën xëccal mbaalu jën xëccal jën lalal basang bukki pata li la pata pata. pata ba ñëmmax. pata ma ñëmmax. pata pëx ñëpp xam nañ <laughs> na gore. na góore na góore. waaw na sëriñee. tas sa cheveux. gin cax. kuku sinap. baraaya. maay booy. may booy ax. maay booy ax. leen chaise yi. aj leen chaise yi leen chaise summeeku ràccal yëpp leen ko. bu ci mujj mooy zësal. beneen bu ci mujj nag bi nga xam ne moom mujjee génn temps yi boobu du ma tudd bi. Ah, ah mi ngi ni na bagage yi dugg. waaw te xam xam nga loolu. cumbax te bu salte la boo xam ne fërë fërë loolu fërë. fërë rëw ras gis rigu rigu. vuru vraj. vuruj vërëj. vuruj vërëj. Ouzin Keita ka génne. rëkkante. lëmbalu danse. vudang vudang. toyal wuyaay Sidi Diop a génne boobu. caw sa xiir. waaw boobu Ama Balde la. dàqal yooy boobu Dame la. Nama Ray. Nama Ray boobu ku ñuy wax Pataas Mbay xaw ma moo ko génne mais mais gune gi wax na dëgg lii lii yëpp ay ay fecc réew mi la te boo ma ci laajee vidéo ci fecc bu ci nekk mën naa la ko won lépp lépp mu ngi sama ordinateur. dinaa la ko yegale dinaa la waa Kër Xemes jagu ñu ngi nii muy Ndakaaru. Fi la Ousmane tedde kasso fi la Ousmane demé hôpital ñi la Ousmane wol, woon ñu top Ousmane defe ne affaire ciow sa xir la kenn ku nekk di mulay laay na bagage yi dug kenn ku nekk di dugal ay bagage ñi ñom la Ousmane amoon ci ñom yaakar dem Casamance won len sama wa kër ni ñu mel delu ci na len xex bi fi la muy fan wa kër xemes jago ñu yaakaar ne ñoom ci tratay ndeer lañ bokk waaye des na beneen fecc boo xam ne sa waay boolewu ko ci muy bii nu mu tudd bi dimbal leen ma ci du bii mooy cin lu suus xaw ma cin luy suus xaw ma tuun gu suus du mooy bii tuun gu suus a ngi ni ku mën a wut ndox nag fu taal jóge ñuy suusal cere boo ci ñappee nday ndox cere ji du mës a suus ku leen fekk fu ñuy kiwee rek tuun gu suus gi nañ ci sotti ndox tuun gu suus gi doomeeraan yii ñoom pétrole gaz xamuñu ko de waaye mën gis nga bu ñu leen limaloon tey jii onze pacte yi ñu tere lekk suñu zircon lekk ci or bi naan ci pétrole bi guux si jamaa ji lekk ci phosphate bu félémat phosphate bii nga xam ne mu ngi jaar biir biir biir tiwaawoon foo fukki liir yeeg juróom-ñaari dee dooméram yi romb ngeen fii yëpp léegi nag mu indi xemes jagu mi nga xam ne xam nga dañu ne jigéen ñi talaatay ndeer jigéen ñi ñoom ci xemes jagu yi dooméram yi ñi Ousmane tëdd seen dëkk tëdd ci hôpital yi tëdd ci prison yi bëgg a jëli ay parrainage ñu yaakaar ci ñoom doome xaram yi nañ xool fuñ nekk aca xemes waxal tuur ndox di tuur ndox da nga koy yëg la. yaa Cheikhul Ibrahima Baba ndox da nga koy yëg. bu góor gi bu góor gi di day sànni. waaw kooku góor la. yaa Cheikhul Ibrahima Baba Lamine Diassi. mais sa xunta. waaye góor ñi léegi bu ñuy saw. day toog ci seeni xam nga lu ko waral. lu ko góor day tàng góor day sport di def ay abdominaux yu baax. di def ay appui avant di defar sa bopp defar sa yaram. sagam ñun ñii di jigéen ñi fi mu ne ñooy ne ci saal yi defaru rawatina góor. dëgg dëgg góor boo bëggee doon góor dëgg booy saw <laughs> booy tuur ndox ñu di ko dégg fële da ngay taxaw fii di ko sànni. nga nekk gentleman. waa nekk gentleman. waaw. da ngay naturel. dëgg la waaye développement sexe yi toj na rëkk bi. xam nga lu koy waral wax naa ku la naxa katta ndayam laa la wax góor yi ku ci demul wuti Casamance jabar ku ci demul Casamance wuti jabar doome ram yi loo bari bari ndox bu la yeboo yaa xam yoroon robinet bu la yeboo nga dem wuti li ñuy raxase oto yooyu nga xam ne day cycle boko yoron sax xolal boko sawé ci tat yo xamné domeram la bu génné day sous du def dara yambar yi rek ñoo ne biir Ndakaaru tux yambak dem Touba ko bay fal démissionné sen àdduna ngeen wax ñu wat sen day sacc sen télé agresser len loolu dong lañu def domeram yi ku ci am tak ci jabar xolal bu la yabo yak way way way way way kuma mëna dimbali affaire yi ñu auto nu mu tuddé bindal affaire yi ñu raxase oto nu mu tudd kan moo ma ci mën a wax waaye damay sa doomale doole ma dimbali affaire yi ñu raxase oto crise crise xaw ma crise waaye dimbali leen ma cacheur xaw ma cacheur xaw bu la yaboo sab su lu mel ni casseur mais boo ko sawee ci jeeg gi ay taat yu suus la ko saw doom juy suus lay indi ndayam ku la naxa dëgg ndayam donc dem leen Casamance kuy wuti katal man day ji nga wuti casamance sino bo len fi pare ji di ngeen fi jur gor mu naan nii góor ngeen fi jur mu naan nii ñii ay domaram la ñi ñi ño tok ci télé yi war di wax wax yi tay ñuy xex pétrole xex gaz songot yi songu télé yi wax ju bon ji la jël Ousmane a ci kasso gi tëdd defe nga ne ay nit lañ ñi mën nañ sauver kuy xex ak l'esclavage l'esclavage waa kër xemes jago ngi nii waa penk waa kii nag waa sud ñooy gor ñi kuy wuti jabar daw fa Casamance moom nañ buuxante bu jabari sax mat ay ñaar ak ñett même bu demee sax ba mu leer leen ne benn jigéen ñaari góor nañ tourner tendance bi ay ñaari jabar ak yooyu buñ jeexee nañ def benn jigéen ñaari góor waaye ñii wàccal seen day ci territoire yi rek ñuy taxawaalu waa kër xemes jago mooy waa Ndakaaru suuskat yeeg suuskat yeeg xam par buma paré amna am xamné dinañ ma lonkal ay servet waye fi jeeg buma fi lonkal audio buma ma sa xoon sama bidon ndox la yor kenn du ñew sama sama téléphone bi di fi sous lèr la leen wax ku fi sous sama <laughs> seet li ngay seet li nit ñangi xex nek té doomi aadama yi ay tati sous rek a leen jur ñu ku ci xey rek démissioné sa aduna dem doone ab bayfal paré nak di xaar nak ko agresser buñu né ndigal jog na rek yakamtu ñu dul ñu leen digal bañu jog ñap seen xol nak lor askan wi te yeen ñi tok di sétan yëpp xam nga li ngeen di sétan lu mu lii ngeen di sétan waaw père ñu ngi lay ziar monsieur Babacar Fall ñu gis ni que depuis des années mm-hmm. fi mi ngi am problème terrain mm-hmm. ci Grand Dakar mm-hmm. digënté bi ak tubab bi lan la c'est quoi le problème suñu digënté ak tubab bi du dara tubab bi dal ñooñu amna doole amna na bëgg ñu forcer ci kaw nit ñi def fi loo xamante ni bi kenn xamul lan parce que am na loo xamante ni bi dafa jaaduwul ñun ñun ñoo ko bokk dëkk fi war fee jëriñu am suñu alal war ko exploité mais duñ bàyyi un étranger ñun xoolal lii nga jël kenn xamul fan la jëm ak moom wala ay góor yu bari au dernier na ma ne ma naa la ki ko moom suma frère la ay jirim la bàyyi mënuma duma ko caay duma proposé bi lu ne man ko duma ko def léegi nag ñu jël ci ay pexeem moom ak ay nitam bër ci dimbali fi ñu jàpp waa Descos waa Descos dafa yabal ñu ñëw fekk fii ay xale ñeenti xale ñu jàpp lañu yóbbu fanaan loo leen ci loo xamante ni bii kenn xamul lu ñu nu muy demee hmm. tey ñu toog di ay une heure rek ñu ñu yabal machine bii hmm. machine am réew mu toll nii ci ne ci yoon nga xëy yabal machine en cassette ñu ñëw bëgg a démolir ay alali jàmbur ay titre foncier jàmbur nga bëgg ko ñëw bëgg ko démolir ci à propos de quoi ci ban réew la ñu nekk buñ dee wax nañ leen xool injustice yi daw mooy indi musiba ci réew mi ñu baaxul fekk ay góor ñuy dund ay góor yu ñaqi seen dund ñoo nga nekk un étranger ñëw bëgg leen dund xataal loolu fan lañ ko teg un titre foncier comme ça nga ñëw ba ku dimbali heure bii amoo ordonnance amuloo dara. Mm-hmm. tout say marché noir ay nit ñu toog ñëw nga gaal sa machine rek du ci ñu jàppul nga daaneel ko après ñu ne ak noonu lañ koy réglé noonu def ba daan mu kii jàmbur gee après lañ koy liggéey ba mujjee ko jël mais loolu ça va pas passer fan lañ jëm ci ban la ñu nekk. ñu gis ñu problème bi ak moom yàgg na. mais ça fait des années ba ba

parce que beaucoup waxe la Macky Sall sama Amadou une chose si si gouvernement c'est grave yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan naaw ceef lay def fii loolu loolu dafa doy waar ñu gis ni que fan yële paas si ginnaaw ay doomu Grand Dakar jógoon nañ def sàmmandoo suñu yëf di xeex lii mais aboutirul mais parce que moom aboutir parce que nee na moom xaalisam la yore ok dégg nga li ma wax nee na moom xaalisam mooy làmmiñam lépp lu mu bëgg xaalisam moo koy dox te wane na ko ah daf ko wane de ah bien sûr daf ko wane daf ko wane de kira nak mooy Amadou Ba ki lañu wax ne mbay si nee mom moy futur président Amadou Ba Amadou Ba xam nga Amadou Ba bu Pastef laa saga ndayam ci jikko ji muy doxal fan yi ki moy Amadou Ba di fas nek président mbay si Mansour ne ko futur président ci moment bi kep kuy wa diaspora kep ku yakarne am nga teranga képp ku yaakaar na jekk nga sa yoon newul ci xeex bi terrain bi nit a ko liggéey dencal ko ndonoom pare jox ko ki mu gën a wóolu génn àdduna ay doomam war a doon tubaab ñëw ñu jaay ko ko ci réew mi mu fas yéene toroxal ay doomi sénégalais kan moo ko ko jaay Amadou Ba bi fas yéene nekk fas yéene nekk futur président ñu koy lambar lambaree ci kër seen nitu sacekat yu gëna a mag yi moy nitu yalla yi kilifa diine yi këroo kër mu lambar lambare ku ne mu jox ay yap nga sax mi ak say ngam yu màgget katam katam katam katam pa yi nga xam sen ngam yi yah yi jogatul dem ba màgget iñane sen dono sen dom top ci satch yi rek luñu satch ñu ñew lek kenn du len tuddu nak léegi dañoo satch satch satch satch satch ba lek lek ala lu ger ba bu wax ñak jom lañuy waxe ku nek nan le mako wax mako wax ger lay dundé man ñeto ger la man bandi man woyu la dama doon lakkata ci diiné rek waye ya xalé yi mbele laa ni ñew nañ feeñal ma nak ma tay ke le taxaw fele nan li may wax xamna ma maa ya koy wax waye xamna dinañu ma saga bay moment boobu mun taxaa laq na maki ci ginnaw sëñ touba ba paré and ak ay nerveux nag di xol der bop nit ñi attention yëngu ya. bañ de yëngu wañ de léegi nag yéen ñii borom teraanga yi maa leen di kenn ku ci nekk na ne lii garaawul dina nii dina nii ñu seral ko bañ a financé booy ñu wute ay cocktail molotov wute ay drone chargé ca ay mbir woo mool yi ñu defar ñu ay explosif ñu katt konda yi seen kër yi parce que ñi ay doomaram lañ ay doomaram lañ bu ñu leen seetaanee xoolal ñii li ñuy laxas bu sottee ba ñu pare ci réew mi yow mi yaakaaroon nag bokkoo da ngay ñew rek dem jappal ne say bo daggee bi wala sam xel dem ci Sénégal Sénégal mom bo doxane gelu Sénégalais mom may gas nga pax gas nga ba mu wàq ba mu li waroon dem ci banque ba ngay suñu liggéey tour, liggéey tour, liggéey tour, liggéey tour. liggéey tour ordonnance ya nga ñew ordonnance ya nga ñew bo fa ëmbalee nak dug nga problème xana ambal daw ambal rek ne may changé téléphone est-ce que dégg ngeen am na booy bu fi génne projet boobu nee naa ko bul ëmbal reconnaître parce que boo ëmbalee reconnaître day bi ci kër gi bu feebaree sax nga jënd ordonnance ba keroog muy wasin bu wasinee tamit ba gone gay ba keroog muy jóg di daw barke rasulaay boo moytul sa doom ji dina raam cinq ans parce que mën na jóg dem sax ñu naan la oom yee xollee ko médecin bi bind na ordonnance lu leer laa leen wax nag attention parce que réew mi moo yor ay paayu doomeram kon ay booyu doomeram ak jeeg yuy suus rek fi ne suus karcher nag ndax si nee na góor da ngay doon karcher mais karcher boo ko yoree def ko ci taat buy suus égal nii rek suus moom égal nii rek est que dégg nga yéen may dégg Dakar TV gis naa ki ñuy wax xam fabilis xam Fabrice Fabrice gis naa ko muy jéem a gësum ak a yëngatu wax ko mu réglé boole ko de attention acca ma tegal leen dernier message yi nag ubbi ligne bi lii moo fi ne bu ñu xeexul lu waay jënd Sénégal bu la mo préparé Amadou Ba jaaykatu foncier yi mooy yor réew bu Ousmane yor lu bu bi ndarang bi yéeg na bu ndarang bi yéegee nag xàkkunde àlla rek xàkkunde àlla xàkkunde àlla xàkkunde àlla rek yet yi day dal rek yet yi day dal rek na leer comme bu nit ñi wax du ngeen dégg samedi dafa am ku ma acheté ci groupe groupe bu politique say jëru muy tudd tur wa ndekete daf maa jaawale Serigne Mbacke loola bind ci sama ci ca ci ci sama forom bi ndeke beneen Serigne Mbacke loolu bëggoon duggal waaw mu duggal ma ci buru mu politique sé yoy mais ndekete ñun ba doole ñoo woyofal guru ñun ñi di ay citoyen ordinaire ndekete ñun ñoo sagani guru ndax man day def buma ma gis ñu acheté ma ci groupe te tàgguwuñ ma du ma bés bu toog rek daal di génn damay bëss information bi xol ñaata at la ñaata nit fa ne numéro bi ma dugal kan la ma xol mais man bama duggé bëss bu temps xol dama ci lama fa gis ci ay kilifa tarixa bu ne luma nga ci ay kilifa yo xam man nun nun nun baadoole da nga yaakaar ne kilifa ñu wat sax ñu téléphone nek ne ñi ngi ne lecc ci guru di vocal nak di tek ci waaw di vocal nak tek ci farak lool nguur gi tek ci contre lool Ousmane Sonko tek ci ndim bi ma ko xool laa ne yi kay ndekete ñu togg seeni soos di togg seeni ñeex bu jógee di ñu ragalloo groupe yeeg ndekete ñoom ñoom ay numéro yi qualité qualité laa ay personnel ñasa nga ca mbàkkee nga ca siima nga ca laaya nga ca ma ne vocal ma def ma dara ma pat ñuy vocal may dégg ah xanaa bañ demee ba seetlu ne biñ ne sëñ Mbàkke Lo te fekk na ndekete du kañ soxla woon ñu xool muy man lañ xam ne moom soxaluñ fi kii daal di may retire ndànk vocalu ma fa jëluma ojo kenn yóbbu numéro nag am naa leen ndax moom boo xasee ci groupe ku am kii dafay am numéro man nag ni vocalu fa kenn néew mag dama ne pat am naa seeni numéro loolu mat def attention bu baax ci kuy acheter numéro am naa sensé ndax xam naa bu doon groupe bu lobby musibaam bu doon groupe bu lesbienne ndax euh, groupe yoo am ndeket gars yi dañ ñuy sa dañ dañ ñuy woyofloo internet di naan réseaux sociaux yi nekk waaye ndeket kay am na ñoo xam kay ñu ngi dund ci groupe yi di waxtaane li ñuy teg ak teggi ah di waxtaane ni ñuy war a faleek ni ñuy war a folleek moo kilifa dina koy ndeket dañ na lëcc ci ci politique bi dañ koo téye di ko siiwar bu baax a baax a baax a baax <laughs> man di samedi dama waru man ay 4 da lañ ma roppi kama dugal waxut ak man waxuma ak mom ma dama jum dugal da ne pat ba neug ni mané mané pat en tout cas dal amna fay numéro kilifa yo xamné ah, xana ma waxal len ñu li ko bañ ma tontu wala ñu bloqué ma amna fa numéro yo xamné ko newon dana ma am yi numéro te ko ni won ñi ñi ngi ci groupe ba nopi di waxal nak nga yakar dañu dañu fatu nekete ñu ngi vocal di teg di teggi di sélectionné seeni nit <laughs> ma ne ñun baa doole yi dee nañ ñun baa doole yi dee nañ ñun kay baa doole yi ndeke dañ noo wàcc ci mbaarum seng mi rek waaye ndekete ñoom groupe yi kay gars yi dañuy wax rek groupe bu nekk am kenn ku nekk la nga tollal yaa nga ci sa groupe ñun baa doole yi nañ téye suñu groupe yi di ci waxtaan di ci jëriñu di ci jëriñe ah <laughs> eh, bari na de ñoo xamne dañuy wax ci kaw rek waye seeni numéro ngi ci guru ñu lekkelo di waxtaan di tegg di tegg waaw lu wër nak la leen wax nena leen serigne ci boy war ram dëgg dëgg dëgg demal ci doomu soxna yi <laughs> ñaan weer dem numéro yëpp nag dinaa lijjanti yëpp kenn ko ci nekk dinaa siwal sa tay ci kaw table ji jël sama paga yor sama kurgo gu ndaw di leen fajjat ay table kirtinding la yor xam ngeen dem leen joal di ngeen gis luy kirtinding fa ñuy ak géej gi yéen ñëpp dinaa géejati seen ndey lu yéen fi toog am ay salaire ci état bi te liggéeyu leen xëyu leen gontu leen ngeen ne yéen ñu gën ci lekk lu daganut nañu yéen ñu gën di sukkuloo suñu frère yi di sukkuloo jeeg ji borom suus waa waa suus di sukkuloo sukkuloo ngeen xale yi jigéen yi ba sukku bee leen yóbbee ci suus sukku bi moo leen yóbbee ci suus jigéen bi góor ñi nag léegi sax sen tout yangi ngi seen yangi yaa ngi sus suus jigéen yaa ngi sus góor yaa ngi suusu suus léegi carcère lañ len di laaj carcer saw len saw ngeen ko ci ngelaw de saw len ngeen ku ci deugar li tayor ay tablette sawal dañ fi andi kuy sus de tun gu sus de ku ci saw dara baax na asalaamaaleykum Pastef jusqu'au bout mag len di ziar Balla yow la fekk si buntu bi ak audio aira bashidi man nag lu semi sama génn bareetul waaye génn bu jotee dinaa génn bu génn jotee rek dinaa génn mënumaa génn tout le temps waaye bu génn jotee rek dinaa génn yu mel nii nag daf may génnee yu mel nii daf may génnee moo tax man bëgguma sax di génn génn lu bare parce que man yu mel nii mënuma ko supporter askanu Sénégal dafa am lu nu jaawale ñoom dañu jàpp ni Macky Sall la ñuy xeexal wala dañu jàpp ni Macky Sall lañ ko seqal toujours dañuy fàtte ni ñun système la ñuy xeexal système te système garab gu bëri ay car la garab gu bëri ay car la ñi toogaanu garab gi timit dafa bare kon système lépp dafa laxasu ci xeex ak système xeex ak système bakkan bu rot moo ci gën a ndaw nit détruire na ci pays ndax xeex ak système dëkku lëmm détruire nañ ko ndax xeex ak système bëgg système bi sax fi dëkk mais askanu Sénégal lay wax. Fabrice moom jàmm lay wër xam nga dama ko attaqué dama laal suuf muy kuraate moom muy parete pare suus ma ne ko fii boo fi suusee ma tay la ci gat mu feree ne naaj ne fii dañ fiy tere suus yow nanda nga nandite nga man moo tax nga neex ma acca jéebaane lii nañ leen ko jéebaane lii nañ leen ko jéebaane fépp fu waay nekk na nga si def audio jéebaane ko dugal ka ci roq yi dugal ko ci quartier yi dugal ko fépp parce que Macky Sall du nit ku ñuy weddil def katu def lu ñaaw Macky Sall lu baax lay def nit ñi di ko xiiri xaala mais lu ñaaw Macky Sall duñ ko ka weddil mukk mukk mukk mukk parce que bu ñu fàtte ni Macky Sall moo toog mu ni ñàkk nguur dee moo ko gën a sedd Macky Sall bi mu ñëwee ci nguur gi laata muy wax lan moo nekk ci coono yor réew ak lan mooy metti metti jiite askan Macky Sall dafa teg loolu yëpp di waxtaanu metti metti ñàkk nguur la Macky Sall njëkk waxtaan ak askanu Sénégal ba teg suñu loxo ka ñàkk nguur deew ko gën a sedd kon Macky Sall yàgg nañuy wax ni nguur moom bakkanam la ci teg te combat yi muy def yëpp. bakkanam la ci teg ndax la mu waxoon muy del si ñàkk nguur moo ko gën a sedd kon askanu Sénégal bu leen xeeb bu leen xeeb danoo jàkkaarloog nit koo xamante ni dafa bon ba bon ci askanam dafa bon ba bon ci askanam xañ nañu koom xañ nu économie léegi nag xañ ñu boroom xam-xam yi moo ko desee dëkk nag suñu demee ba yow ku fa juddu am xam-xam nga faagaagal ka ku juddu bëgg réewam bëgg jàpp si développement réewam nga xa nga faagaagal ko boo nee yéene nga réew mi développement waxuloo dëgg boo nee yéene nga réew mi développement waxoo dëgg kon askanu Sénégal nañ leen jóg nanu xam ni système la ñuy xeexal nanu xam ni système lañuy ñuy xeexal fépp fu waay nekk na nga jóg gis nga réew mi bu ñu bëggee jëriñoo réew mi bu ñu bëggee toog ci réew mi jëriñoo su ñuy set ñëw jëriñoo fi suñuy joom ñëw jëriñoo fi daanu jóg suñu toogaay bii te takku taxaw xeex jàkkaarloog ak bandi criminel yi nii. la loo xamante ni soxlawul sax ñuy jéem a xool de midi au soir di wax lan moo ko waral yàlla ma kojoon ma leen kojoon Ziguinchor nag yàlla moom moo nekk pale di leen koj ba suñu jon yàlla tey ki sàll nekk na lépp sëf jullit. parce que julit deug da nga wara tit julit deug da nga wara di tit si misal yi yalla di woné julit deug da nga wara dem ba mu nga tit yalla dogal li defat li defaat li nga tit si sa bop mais Macky Sall du tit Macky Sall yalla day deug sax yalla suñu borom parce que li yalla dogal yépp Macky Sall dafa nek ci tanku diko effacer ak diko fomp li yalla dogal yépp Macky Sall nangu ko bëgg nañu nangul ka li yalla déggal ma déggal ma doomu xaram bi dégal doomu xaram bi euh, Aliou Aliou Aliou xara xara xara Aliou xaaral ma andi ko xaaral Aliou Aliou mu ne Akhenaton travail pour Macky Sall xam nga ñoom boo kattee seen ndey seen làppato yi toj seen cott ndey doomu góor jigéen ñooy ñëw nee nañ ñooy indi ay argument pour défendre Amadou Ba Amadou góor jigéenu xam nga réew mi réew mi réew mi cogatu moko yak ak borom far yu góor yi góor yi am ay far yu góor moko yak da ngay bëgg nit ba buñuy wax ay défaut ngay ñu sanday di gëssamu ta do dem gëssamu ko sa passe de waye da ngay ñew ci góor ñi di fa waxe gis nga buma ma sa commentaire commentaire dina tax sa ciot ndey bloqué la nga lima la bo boo commentaire da ngay dem nga wax Amadou Ba mu deug ñew wax li Ousmane Sonko doon wax ak boy greffier di génn dem Mali li mu doon wax ba mu tax ba mu xat ci réew mi tànk waxu ko muy lambar lambari noonu rek lay demee bu ma gisaatee sa commentaire nag dinaa ñu sa ndey mu leer laa la wax nag yàlla dogal ci moom te bañu ñu ko nangul nan ko parce que nangu ko moo tax ñu nangu makki ñu dékku makki Sall ak ñaawteefam yi fukki at ak ñaar Macky Sall jiite ñu ba déssé ka ñetti wër ni ma ñet duma ma jóg ci nguur gi il faut ma toroxal len kon Macky Sall gëmul sax yàlla Macky Sall yàlla sax da kay ndëkk Macky Sall du sargal yàlla suñu borom lépp lu ko yàlla jox xeeb nako gënul Sénégal gënu fe bax gënu fi ay waajur yàlla tan ko ci biir ay sénégalais def ka lim ka def jox ka teranga dim ko jox sénégalais taxaw xéxal ka Macky Sall fi la mujjé ak sénégalais mais yalla mi a des ci qui ont yalla mom mo qui koj pale yalla mom mo len koj pale capable nga nak capable ngeen def lu len neex waye dina len wax ngeen di def ni ba mu dugg suñu nopp naré le français yi diko def bo français yi def yak sa seul nan ko nang ka xalaat julli yoon doo kay def ni nga tegee nguur gi sa bakkan ba mu jaral la lu bon lii ni la nguur ñàkk nguur dee gënee sedd si yow ba mu jaral la lii ngay def ñun nii lañu projet Ousmane Sonko bii ak Ousmane Sonko jaral la suñu bakkan ba ñu capable def li ñu la war a def boo ñu ko defee billahi wallahi wa tallahi li nga capable li la nguur jaral ba nga capable def lu bon li ngay def xooloo ci yàlla xooloo ci yeneen ñun noonu la ñu Ousmane Sonko jarale noonu la projet bi jarale ba ñu teg si suñu bakkan ba bu boobaa ñun tamit daañu def loo xamante ni doo ko xaar si ñun. billahi wallahi wa tallahi balaa ngay rey Ousmane Sonko nag wala ngay yeb la ñu koy rey su yeboo képp koo xam ni tubaab la muy français muy ku mu mënti doon rek ngeen fexe buub seen ay bagages génne leen woowal say doomu réew ba pare yóbbu leen France ba pare français yépp génn nga doogay rey Ousmane Sonko. bis boo ko reyee billahi lépp lu xonq Sénégal doo gudd fan daal na rey si même le jour képp ku nekk tubaab ak lépp kooku mooy sëy bu tas nag diggante France ak Sénégal tas tasar parce que lépp soos yëpp seen loxo ngi ci biir soos yëpp seen loxo ngi ci biir yéen ak Macky Sall la yem parce que yéen seen intérêt rek ngeen di wër amu leen xarit amu leen i mbokk Macky moo dul nit mais li ngeen wax wax bu leer nañ la amu leen xarit amu leen mbokk seen intérêt ngeen di wut Macky Sall nag moom moo leen bëgg def mbokk Aliou Gueye katt naa sa ndey jàpp la nag comme sa yaay taat bi day suus boloka naa sa ndey wax nga ba balu puloo dugg sa taatu yaay léegi boloka naa la dootoo waxati wërul intérêt askanam wurul intérêt réewam waaye balaa ngeen di rey bu yeboo ngeen roñ seen mbokk yépp tubaab yépp génne leen dëkk gis nga bu ngeen ko rey képp ku fi nekk tubaab balaa ñuy xam tubaab nga wala français nga wala feneen nga fekk na jël nañ sa bakkan billahi wallahi wa tallahi boobu nag ngeen di xam projet bi ñun ak Ousmane Sonko lu mu nu jaral voilà léegi nag damay ubbi ligne bi tey wax Aliou Gaye yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg Amadou Ba tey jaawale Akhenaton élément Macky Sall da ngeen di wax Amadou Ba fi Akhenaton yegg Macky Sall ba téye ci xuur yi di ko gën gësam di xëcc téye ci cokku Marème Faye Sall yi di xëcc na Amadou Ba yegg foofu ñu xam ne ñu xool ñoom ñaar kan moo ciy liggéeyal Macky Sall Akhenaton dem na ba tee ci cokk greffage u Macky Sall ah, ah kii Marème Faye Sall yi xuuru Macky Sall yi moom Akhenaton chaque jour mu mel ni wet weteñ di la ngaamu ci xuur yi pour daaneel ko loolu na ko Amadou Ba def yéen ñi koy faral bu ko defee bu yeggee fi Macky Sall fi Akhenaton yegg Macky sal ñu doog a xool ñoom ñaar kan moo ciy liggéeyal Macky Sall bu fa yeggul nag ngeen xam ne moom mooy liggéeyal Macky Sall Akan mom lu ko neex lay wax bo len ne Amadou Ba da na ci dekk bi ngañ dem baa ngi taxaw anamu lu ko teree tok ci dekk bi Amadou Ba lan motax jagat jagat woon ko police ak andi lan motax Amadou Ba ñame am titu wax di waxe ji TFM ta Biram sulay ak El Malik, gën ko jégué Ousmane Sonko fouf mom mu bëgg yor ay kaddu yo xam Ousmane Sonko yor won kaddu yooyu kaddu Ousmane Sonko yenn borom karcher karcher karcher borom quartier yéen laa waxal ku fi laal jigéenu Ndakaaru Touba Tiwaawoon Thiès Kaolack te wàcc jiwoo Casamance lii nga fi jur fecc bi tam bu bees bi war nañu wax tur bi nag carcère ba ba fecc bi mo tuddu sujaajatun suus amna na sujaajatun a ngi suus ak sujaajatun boko solé ci suus rek sujaajatun lay jur suus rek day jul sujaajatun na leer acca ubina naa bi amadu Ba moom tànk waccul nuus ndayam téye lamiñam wala wax waxu boy ñu taxaw xex ñu fexé dajale xaliss paré ay cocktail monotov du ngeen ñu fi nax ba am ay plan numéro 2 plan 2 mom bu fi taxawé fi plan 2 bii génn man ci ñi ñëkk a ñuus ndeyi plan 2 bi ci lay bokk na leer plan 1 rek yéen a ko yen yen wi dugg na kaso ñuus leen ndeyam génnee ko kaso wax leen loolu waaye plan 2 bàyyi ko ci kaso bi tay ko te waxoon leen ko acca <laughs> liñ bu béeku na liñ bu béeku deux minutes jigéen xabaabal ñetti jigéen benn góor acca ubbeeku na bismillah ñëw leen amna benen yobante bo xamne calling calling calling calling alaykum assalamu alaykum general ñu ngi ziar. 0033 Sénégal ña fay ña fay gërëm ñay gërëm ña fay euh, euh Macky Sall ak ñay gërëm Amadou Ba ñom ñep ay doomi xaraam nañ naa la waxante toj seen jobu nday ñom ñep waaw na sénégalais yi jóg tett la fal ndey ñii ñu jóg abal ñu laal waxantel bi parce que ñii ñu ay doomi xaraam lañ ñu tett seen lëfal ndey nii ci réew bi ñii ñoo naan der du jaam ñëpp naan nañ leen tett seen toog fii ñu ngi di di suñu bopp yi na sénégalais yi jóg ubbi sarab ndey ñii ñi ñooy ay doomi xaraam sénégal li fi ne du dëgg du yoon nag booy yi jóg tett ndey ñii salaamaaleykum voilà numéro bi yéen doomu ci mburu mbaam yi numéro bi ku ko soxla 0033 641 02 15 04 jigen xabaabal góor une minute. calling calling calling. salaamaaleykum. hello ñu ngi ziar. waaw jaay jàmba ñu lay ziar lu bëri bëri. ñu ngi daal man de waxoon wax dëgg yàlla man yaakaar naa gars yi nañ ma quoi parce man yaakaar naa quoi jot jot dafa

benn fan ñaari fan ñu daqaar nday Macky Sall ak bépp kilifa diine ku toj seen lëfal nday ay ñoom ay ñoom Père Nawel ay ñoom Mbaye ay ñoom ay kac kac kaca Kaolack xaw ma lu mu tuddati mandikat bu kattan ndayam boobu ak ak doomu lëfal ndayam bi ci kaw moom mooy le mais dafa jot Sénégal dafa jot Amadou Ba ndeng bu kattan bi moom mooy war ma ñëw naan day jiite Sénégal ah yu dëgg seen nday ñu jàppale loxo ci poos man dama xamul Sénégal man man lii lan la lii lan moo leen dal yéen lan ngeen def yàlla wala xanaa da ngeen tooñ wala liw yéen xool leen li ci li parrainage wane leen woon lépp ñëpp jóg nañ duñu parrain mais ñi bañ jóg na duñu parrain mais lan moo tey mënu leen jóg téegal nday Macky Sall ak ñi mu àndal mais Macky Sall forcing lay def doomu xaraam la doomu lëfal ndayam la tekkiwul dara xamul baayam ah wax sëriñ su toj seen lëfal nday si ah toj seen cottu nday ñoom ñëpp a yem seen ay camp la ñu bokk lëbe la ñu bokk li lay war sul jeunes yi Sénégal kañ ngeen di bëgg dara bëgg seen bopp dara bàyyi géej gi seen moroom yi jóge ci wow ñëw fii ci géej gi ñoo ngi bëgg a dee di tëdd ci mbedd yi xëy ñu gont ñu ngi bëgg a dee di tàllal loxo ci mbedd yi kañ ngeen di nekk ay nit Sénégal ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko war a mën a defar kenn duñu ko defaral kenn duñu ko defaral kon nag nañu jóg booloo doon benn dëgg ndey ñii ñu jóg fii Macky Sall ak ñi mu ànd ak sëriñ si ñëpp seen déggu fa fal ndey dafa jot ñu jël suñu senegal defar ko senegal métti na sonn na ñii seen déggu la fal ñëpp ñoom ñëpp seen dëggu la fal ndey lañ wax ma leen di xamal ne Ousmane Sonko li ko fi ba heure bii wallahi azim du nit du nit jéem jéem rek dëgg sa ndey ci suuf indi ay nit François indi ay nit fële itam la fal ndey mënuñ ko ci moom. billahi wallahi taalahi Macky Sall sa bakkan ngay jaay billahi wallahi sa bakkan ngay jaay sa bakkan rek moo ciy des man mii di waxal yaakaaroon naa ni keroog ba nga déclaré dafa def troisième mandat daal ah kii raw na mais Macky Sall man fi mu toll nii xam naa yow sa bakkan moo des. billaahi wallaahi sax lii ngay jéem ci Ousmane Sonko yëpp sa kaw lay jëm lii ngay jéem yëpp sa kaw la jëm ñu dëgg sa nday bi ci ba dëgg bëccëg ndar kam boo ko jaree Moodu Moodu yëpp wàcc si Sénégal comme que ñu seet Sénégal ay ay ay woddkat lañu ñu Moodu Moodu dinañ wàcc si dëgg sa nday digg bëccëg ndar kam doomu lëfal nday bi nga doon nekk seen kilifa kattan nday bi du sax ay kilifa dëjjoo nday moom seen jabar seen seen doomi dëjjoo nday seen bëkk ne yee jur dëjjëw nday moo leen ko du ngeen jiw raay rek ngeen mën ak teg seen nopp yi waaye seen diggu la nday waay dem ba dem nekk màgg bëgg alal lu lu lu ndaw ñu gën a bëgg yéen leen ko gën a oto bu baax kër gu baax yére bu baax yéen a ko gën a bëgg waaye seen dëggu la fa nday kañ ngeen ñeen di wàcc dëmmoyu katta ndayam yi kañ ngeen ñuy wàcc li laay wul wàcc leen ñu sonn nañu def leen suñuy maam jaam def suñuy jaam def suñuy doom jaam ba ñoo def ba nga def suñuy sët jaam seen dëggu la fa nday wàcc leen ñu sonn nañu Sénégal moo gën a yées fépp foo dem Sénégal yi fa gën a yées hmm? réew yëpp jóg nañu xeex li ñuy xeex yéen ngeen toog ni mokk mu xaaral kañ ngeen di jóg kañ ngeen di yeew képp ku ñuy bës ci suuf si déggoo la fa ndey bàyyi leen ñu ñu jóg bàyyi leen ñu jóg dafa jot dafa jot Macky Sall force la ñuy jaay dañuy jaay doole te juddoo suñu biir ñu bokk ñu ñëpp benn Sénégal mu ñu woon di ngeen du ngeen dara Sénégal Sénégalais ñaani bañ naa da ngeen koo fàtte xañaa ay doomu gor ngeen seen kilifa yi ndayam def ñu ko ñi xit leen xeex Sénégal yëpp kenn newutu fi ñi ni waay yow ba jii sama xol ma jii jaajëf waay ñi seen dëggu la fa nday waay. eh eh am na benn camara kamara yille bu ma bloqué léegi ya, eh fii nan pal du fi soos du fi suus de ay eh, karola de pal du fi nan rek nan bi day toj nan pal du fi deko ne attention attention pël buy décorer ah laay bañ pël fi xaw a ah yëngu rek attention déglu leen ma pël yi amu leen sens. Ah. calling mer rek lañ mën pël yi tey tey lañ may song après bu ma paree live bi tey du ma du ma mate. calling calling calling. allo. allo Jiji. waaw. maa ngi lay ziyaare. ñu ngi lay delloo di ziyaare sa follower yëpp. ñu ak ñi lay déglu yëpp. macha allah gis nga jiji mhm. sénégalais moo bari wax. sénégalais bu bëgg a xeex na bàyyi wax bu bëri bi te jog takk ndig mi góor mi jigéen man loolu laa gis te ñu bàyyi cotiser ci paneelu Pastef bi Pastef fii ñuy cotiser te duñu xam xaalis bi fu ñu dem ak cotisé te xeex xeex ba Mali Burkina ba ñu buggee xeex waxuñu kenn nañu cotisé dañu jóg taxaw si mais sénégalais moo mun a dóor gis nga xeex bii sax sénégalais bi de sénégalais yi dañ si dóor xaalis bu weex tàll de dem toog fële bokk maliens yi ba ñu buggee xeex kenn cotisé wut yéen xam ngeen si dara yéen panafricaine yi di xeex burkinabé bi tam la même chose ñun sénégalais yi ñooy wax balaa ñu xeex na waa euh, kaw ñun ñu cotiser jox leen pour ñu xeex te dañuy dóor wax ak dóor lañu mun comme suñu sëriñ yi dañuy dee dóor ak suñu njiit yi. ay taalibe xeex waaw ñoom ay taalibe xeex de ay dóorkat ñooy xeex de. waaw <laughs> mais nañu bàyyi wax bu bari bi ak ndënd yi nañu bàyyi wax bu bari bi ak ndënd yi ndënd yi nañ ko teg fële. ndënd yi nañ ko teg fële parce que saa ñu bëggee xeex rek ñu jëndee ñu Wally Seck Youssou Ndour Ndour tegal ñu jëndee ñu ñii tegal ñu jëndee euh, euh, vampire bi mi wax loolu noonu lañu ñu war a ignorer ñoom Gabriel Kanax ñooñu ñëpp la ñu war a ignorer Jiji tañu xeex man loolu la gëm man deretu Casamance laa yore man loolu laa gëm man loolu laa gëm. fecc ba yooyu yëpp nañ ko tegee boor suñ ko tegee boor rek wallaay jiji dinañu gën a cotiser man cotiser naa bay bëgg a dee. wallaay mais nañu bàyyi di cotiser Pastef loolu laa leen di wax nañu cotiser si activistes yi ñu xeex waaw man Ousmane Sonko laa gëm mais paneelu Pastef yi nañ fa bàyyi cotiser man maa ko wax te cotiser si activistes yi ñu xeex xeex bi maa lay bàyyi jiji ok eh, merci merci Aliou Sow yow mbaam àll bi da nga war a ma teg la sama tànk yow xanaa ma sa buur la dama lay ñuus attention salaamaaleykum salaamaaleykum aleykum salaam yaay booy fayal sa live dégg allo maaleykum salaam. Jiji maa ngi lay jaare sa boobu doo ko fay ñu mën laa dégg. wàññi naa ko waaw. man ji xam nga lu ma jaaxal man man man ana gars yi taxawoon Kër Massar. ba Ousmane Sonko di leen laaj. ndax pare na ñëw ñoom ñëpp ne waaw man ñooñu laay laaj ana ñu. man ñi taxawoon Kër Massar mbooloo bi taxawoon Kër Massar lépp. bi Ousmane Sonko na leen pare ngeen ñëpp ne ko pare nañu mais ñooñu anuñu anuñu anuñu ñoom dañoo nar a toog sacrifier Ousmane Sonko pare ku nekk toog sa biir kër taluñu dara taluñu dara Sénégal ku la woo di la ñaan ay dix mille francs ku la woo di la ñaan ay vingt mille francs yow lekkoo naanoo bu ñu waxee nga ne dëkk bi metti na dëkk bi metti na boo xamante ne xeexoo xeexaanoo waaye léegi da ngeen toog seetaan ñu sacrifier Ousmane Sonko léegi ngeen toog di ñaan léegi li ngeen di ñaan lan la Sénégal du ngeen jug ngeen defanteeg Macky Sall 24 heures mu génn biir Sénégal waa man man man man man man comprendre tuma léegi Ousmane Sonko mi ci grève de faim encore léegi dañuy toog di seetaan Ousmane Sonko def grève de faim ba kañ Macky Sall su ko neexee seetaan ko ba mu dee foofu su ko neexee seetaan ko fa ba mu dee parce que dañ naan. Ousmane Sonko moo jël initiative boppam def grève de faim dañu waxante dëgg sénégalais yi génn leen ñi taxawoon naan Ousmane Sonko pare nañ génn leen man kilifa yi moom waxuma seeni wax man moom damaa mës gëm affaire de sëriñ ku si nekk toog di xoggaliku ay ñoom sëñ Abdou Karim ay sëñ Mbaye Sy Mansour ay ay man non vraiment mi spiace Sénégal man maa ngi jégalu xaw ma sax lan laay wax vraiment billahi ak xool bu naqari lii musiba dëgg dëgg dëgg dëgg la ci Sénégal fi ñu jëm bu ko Sénégalais yi xamoon dinañ bàyyi suuf yi ñu def génn xeex lii mu jeex jërëjëf DJ. suus kan man maay suus moom man maay opposition suus moom première opposition man suus moom man maay Ousmane Sonko suus salaamaaleykum yaay booy nanga nga def. asalaamaaleykum. maaleykum waaw waaw maa ngi maa ngi waaw maa ngi fi maa ngi fi maa ngi nuyoo. sunu yaay ji borom xolu yërmande bi ak xol bu jeex. borom ak njureel may ñaan leen ndax euh, xel sax du doy ndax fii ñu toll tey mën naa ni ñi doon xeex bu nu bëggee bu nu bëggee ñëpp dégg li ñuy wax tey yëf yi bu nu ko féetalee sax ci. ñi nga xam ni danoo tuddee seen boppu Pastef am na tey wax ji tey fan la ndax man dama gëm ni ña doon xeex ña taxawoon ñii ña nga ca kaso ba ñii rey na leen ñi disparaître na nu kenn xamul fu nu nekk tey dama bëgg ji ñu ñaan ñu ñu wax leen tey mag ñi ci Sénégal mag ñi mag ñi laay waxal man. ak jigéen bi jigéen waa waa suuf. foofu laa jëm foofu laa jëm si mag ñi muy góor di jigéen di mag di ndaw nanu bàyyi xel lenn li nu dese ci jeune bareetul nanu jóg jiitu nanu jóg jiitu def ne waa Casamance xale yi topp ci seen ginnaaw ñu jóg taxaw jàkkaarloo Macky Sall te xam ni Sénégal dugg na ci Sénégal dafa nekk ci guuta kooku mu wu nit ñi xam ko xam nga fan la ñu toll ku jógul ku jógul danaan la fekk ci sa biir kër danaan la rey danaan nangu sa alal dinañ la génne réew mi walla ñu dàq la nga daw ndax dañoo jël Sénégal def ko seen moomeel kooku bu yeboo Sénégalais def ci seen bopp gis nga ba ci waa APR loolu nan ko def ci seen bopp nan ko def ci sen bop fofu la senegal jëm tay nam comme dese na lu tuuti maa ngi ñaan sunu yaay ak sunu papa yi sunu maam yi nanu jóg def comme Casamance ñu sauver li des ci senegal ta xamni lu mu mënti mel waju bu nek da ngay ñaan yalla sa dom sa dom suul la waaye doo sa njaboot. maa ngi ñaan yàlla na ma ñëpp dégg mag ñi nanu jóg taxaw nanu jóg taxaw di góor di jigéen man ndaw ñu ndaw ñi jànq yii waxuma seeni wax ndax ñooñu perdre nañu ba pare waaye sunu yaay yeeg sunu papa yi sunu maam yi ñi nga xam ne dese nañu seen xel te xam li nar a xew ci Sénégal nanu jóg sauver Sénégal jàppale xale yi ñu liggéen ci Sénégal Macky Sall may nu jàmm ci Sénégal sinon fa nu jëm dootu xeex bi xeexu Pastef Sénégalais yi noonu jóg jàppale jàppale li noonu dese ñu jóg dimbali nu sunu yaay yi jóg leen xeex bari na façon xeex bari na façon ana boycotté ana jóg takk seen digg jóg ndax looy def tey nanu def ne ñoon ñoon li ñuy def duñu ko jël bu publier ko dañuy xëy rek ñëpp taxaw lii mooy Sénégal nan jokkoo ndax réew mi ci boppam moo dugg ci guuta te ñëpp di ko yëg après xaw ma ñu ngi may dégg xaw ma déggul nu dana bari ñoo xam ne toroxte wallaahi danoon yaakaar ni xeex bi Ousmane lañ koy xeex ndax nañ seen bopp lii xeexu Sénégal la nanu jóg ndax Sénégal ci guuta na jëm Sénégal la nu jaay dañ ko jaay dañ ko jaay dañ ko jaay na ñëpp jóg taxaw lu mu laaj ñu def ko te jiji li nga xam ne moom ngay laaj am na ñoo xam ne xamuñu fi ñuy dugal xamuñu ko. waaw buñ ma envoyé buñ ma envoyé xamuñu ko trouver solution. waaw buñ ma envoyé buñ ma envoyé audio rek ci 0033. 641. 02 15 04. waaw parce que APR dañu rëy. waaw kay nan trouver solution. Sénégal ci guute la jëm. xeex bi du Sonko. nanu jóg taxaw. yaay yi laay jigéen nanu jóg. seen lëmbal yi ñuy lëmbal di nekk guddi gi mu nekk di def seen yoo xam ni kenn xamul lan la. xam ngeen ni Sénégal ku ko xam-xam ni Sénégal anku na. nan jóg sauver Sénégal. nan jug sobe Sénégal ndax ay monstre lan ka digaaleel ay monstre lañu ay monstre lañu yàlla na mu gégg sama wax ji jërëjëf ndax ñu war a dugg dafa bari jërëjëf jërëjëf yaay ku ku ku bëgg a cotiser am yéene bi nag ma woo ci 0033 wala nga envoyé ma audio audio ma li kilifa dina def ci suuf di xeex Ousmane allo once again dama koy argumenté ah, waaw waaw salaamaaleykum dama koy argumenté de once again yaa ngeen jëf waay ji ziar nañ leen de once again noonu la voilà waaw waaw waaw once again waaw wal nag moom fii moom buñ fi wal geenu makki rek lañ fi wal geenu paa bu téegal ndeyam boobu walu ma suusuma xaw ma mooy kii bëgg walu ma suusuma bëggoon dem yàlla ma walu ma suusuma on laa wax walu ma suusuma dama on once again waaw <laughs> once again waaw mi ngi noonu. once mat na sëkk. dama koy argumenté problème mat na sëkk. waaw ah, cas bi daal nii la demee rek. Eh, li xew moom gars yi xam nañ ko dof dof lu moo fi nekk. waaw problème bi du Macky Sall problème mu Sénégal seen gëm-gëm yii la mooy gëm-gëm yi ñu gëm nii dégg mooy problème mu Sénégal amul leneen ndax maa ngi dégg eh, def gis borom def gis. ma ne fii yàlla rek mooy def ñu gis muy wax naan am na ku mu toogal ku féet ci tareexa yi xam naa ki muy wax mooy boy booy bas la muy expliqué ex existé wut booy bas moo la gën a xam li xew du innocent ci affaire bi dégg nga bas Abdou Khadar du affaire bi xam na li xew naan xawma Sonko dafa lii ak dafa laa moo gën a xam li xew xam nga ku bokk ci parti bi ba parti complot ba noppi di fonto sénégal yi xam nga man damay doog a dugg fii nii rek nag waaye damaa am lu ma bëgg a wax nii rek ma maa ngi doon dugg suba ba léegi dégg nga mooy paa bi bëggoon dem tànk yàlla wi tamit noonu la demee seen gëm-gëm yi la rek dégg nga seen yi la man na gars yi répété naa leen ba sonn leen man position bi ma nekk duma ma ko changé mooy saagas ndey seen gëm-gëm yii di bëgg ñoo ate ñàkkal man ñooñu laa amal mission pas Macky Sall légui nak li li ma bëgg mu leer te patriote yi bayiko dima bayil message nee man bokuma ci ñom bayil leen dima bayil message dima téré ay saga mën na leen wutal golo gu ndaw yeen saay yeen yeen ba yeen dima diaboliser ba nopi ñen ñu bëgg ma téré pour ma saga seen sëriñ ah nañ ko bayyi bokuma ci ñom man bokuma ci ñom yeen bokuma ci yeen kay wax deug yalla lolu leer na man Sénégal la bokk dégg nga nit ñi bu ñu dee wax seen soxla tey ñu ngi nii tey gis ngeen dëgg gi ngeen ñëpp ngeen toog ki ñu àtte ñàkkal mooy seen sëriñu doome xaram yi te teguñu ko fenn lu dul argent de poche ak ay lekk yu ñu ay yàpp yu ñu mottaleeg yu kenn xamul yu tegal ndayam yooyu mooy lan ah ah ñoom ñoo gën a xam ñoom ñooy nekk fii boo leen gisee seeni commentaire rek nga xam ne ñoom ñooy weranteek ñun fii ci suuf Facebook bi ay nan ay Amadou Ba doo étranger nee nañu étranger nga ñii ñii ay bëri ñu ñàkk fayda lañ te xamuñu dara ci diina ji ba noppi naan ñun nitu yàlla yi du ngeen yéen ñun eh, yéen nitu sa iblis ah nitu iblis woowee sa bopp nitu yàlla nit bëgg nax boppam tamit topp la ñu naan ay ñoom nitu yàlla yi doome xaraam yi ngeen doon ah dégg nga yéen ngeen nar ñoo ati ñàkkal duma saaga seen ndey ah sénégalais yi duñu saaga seen ndey buñ ko deful ci suuf it ñu ngi koy def ci kaw mbir mi lii la beneen mbir bi Sonko de mi ngi noonu di defaat grève de la faim ah? ñu toog fi ñu toog rek di ko seetaan xam nga loolu noonu ay cote la xam nga ni ku def deuxième grève première première grève de la fin dégg nga ñu tegaat ba mu kii yoon mu yëkkatiwaat ko mooy bëgg na xale yi jóg bëgg na xale yi jóg ñu jóg génne waa ji loolu liñ doon woote yen il y a ngeen bindal message bi du ngeen jóg ñu xeex ah? ku ci jóg di bëgg déggalaate ponkalu magum jëmbut yor njabootam di leen yar ñu bëgg koo yar tamit réew mi ku ci nekk rek bëgg a nekk yaraate kat ah du ngeen jóg ñu xeex te ngeen bàyyi seen tappale yii ah? lii mooy li nga xamante ne moom lañu ñu war a def jóg xeex instant bi man mosuma ànd ci jóg xeex nii nii waaye dañoo war a jóg xeex lii mooy problème bi nañu bàyyi siñ tappale yi waaw di leen fàttaliwaat nag ne bu ngeen moytuwul nag dama leen ñu wëlbati sama mer bi ku ma waxati na ma bàyyil saagee naa xot ci sa naa xot ci sa lu bon. attention foofu dong laa yem. waaw xotti nga de. waaye paa yi téegal seen nday yi doomi xaraam yi bon yi ñu doon ah, ñu naan ah, ay nitu ah, yàlla ay dëmm ñu naan ay nitu yàlla du ngeen wax yéen dëmm yi ah organiser ku ku ci nekk xëcc sa tariixa nekk te defuñu ko lu dul maccaat sénégalais sénégalais yi tamit nangu ku leen nax ah da gis ku ànd ak sëriñ muy sama nday ak sama baay ñëpp a ci yem ba noppi bu mettee ñuy jooy ah bi eh, waa waa kër eh, eh, doome xaram boobu noonu génn naa ñuy jooy waaye nu mu di keneen ki mam booy jaaw ah ki démb biñ la ñuy ñëw di leen dajale di leen diaboliser loo di leen jox ay sin mille francs trois mille francs ak dix-sept ñoom la woon ñu ngi génnaan naan fii dafa wow ndax ñoo yàkkamti seen wërsëg trois mille francs yooyu moo tax mu wow déegal leen seen day ngeen génn ñu ci doome xaraam yi ngeen doon yéen ñëpp laa wax ñoom ñëpp waaw sama gars yi maa ngi leen ñu bàyyi jaa yéen ñëpp ah ndakaaru ndakaaru ndakaaru jigéenu Aline Sitoé Diatta yi ñoo lijjanti contrat bi yéen waa kër xemes jagu waa suuf jóg leen xaar leen xaar leen benn jigéen benn góor ñaari jigéen benn góor ñaari jigéen benn góor ñaari jigéen benn góor ñett jigéen benn góor ñetti jigéen benn góor damay xool ndax ba léegi ay jigéenu suus laa fi am la lan salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay déglu yaay boy. salaamaaleykum sëñ Jiji xaaral ma wàññi yëf yi. waaw wàññil wàññil yëf ah neel xaaral ma wàññi. waaw moo koy wàññi. ma wàññi live bi yëf yi nee nañ na doon na doon karse. waaw xaaral waaw live bi. moo gën yëf yi moom fan yëpp. maa ngi bëgg woote. karseer la ñuy laaj mu waxtaan ak nit ñi ku am kañot boy joxe xaalis boy joxe boo mën a dimbali nit ñi nan leen ko jox jox ko kay foofu wala ak akanaatoon laalul xaalis nee na képp kuy joxe xaalis jox leen ko jiji parce que man dama yaakaar ni nit ki tëdd hôpital di xeex yow looy diine da galaa ñun dañu mës a gis sonko sonko mi dem ba defar xale yi léegi sax la nga gis benn sàcc bu for kalpe di wër borom kalpe bi dem joxe ko kooku tal na diina de gala di kuupale ak di dose nga dem di toog ñoom daal xam nga duñ fi nekk ay ngoroyoo ñoom seen biir di ngoroyoonte tukki ñoom ñëpp lan lañ fi wut ñoom ñëpp daw si fi kii dem Canada kii dem feneen ak feneen lan lañ fi wut man diina de gala bi nii def moo tax man daal dama bëggoon képp ku ku bëgg Pastef soo amee looy joxe nan ka ta jaarale sa loxo fekkee dam ni dañu bëgg ànd ak Ousmane Sonko si xeex bii ñuy xeex parce que ñuy xeexunu de xam nga ñoom lan la ñu bëgg bëgguñu sax euh, Ousmane fa mu tëdd mu jóg fa ñoom xam nga du ñu xënte ku na ke nekk Suisse moom waxuma waxam du ma jaar sax si turam ndax kooku moom ñoom ñoom ñëpp ay poulain kii la ñu jomaay euh, fay lii lii nga gis ni koy organiser ñii nii def lii yëpp ay ay plan jomaay fay lañu ki nekk fii France ki nekk Suisse ndax yow naka ngay xeexale nit ba mu tëdd loolu hôpital nga ni da ngay diine dagala nanu waxante dëkk jiji man kay musuma tal na diine dagala moma jaaxal jahal, anu ko moma jaaxal waxal wax ko ca kaw répété wat ko ah, diine dagala ñoom ñoo xewle man madame Mbacke man dama def won kuy def diine dagala yow madame Mbacke yaa may dégg yaa ngi live bi waro def sax yow di di di di di naan da ngay da ngay da ngay da ngay def vidéo pour que nit ñi parce que Ousmane digalul kenn diine dagala ku am sa xaalis boy joxe yeen patriote yi maa ngi leen di wax su ngeen ko mënee jox activiste yi ñoom ñoo nekk si terrain bi parce que waa Pastef yi nag waaye nag Ousmane yàllaa ko bëgg de ndax tànnitu ceeb yëpp a ngi feeñ man Amadou Ba waxuma waxuma waxam ak bëtam bu pat man damay laajte ndax Amadou Ba moom moom moom moom moom moom moom moo nekk si si si si si moom moo war a wax wala waruta wax ana loom loom loom ñi war a wax man sànq ngañ démba liir naa ndax ngañ dem ba foo ko waxee danaan nanu wàcc si terrain bi du Ba nekk fi di nelawal xale yi Ousmane folluwul ñun tolluwul fu nuy fo parce que ñun nii nii toogee di discuter di wax makee ngay def li muy def maki delluwul ginnaaw benn yoon de te nag duñu duñu duñu nekk suñu xeex toll ba fii yéen ñëpp ngeen sacrifier seen vie Amadou Ba ñëw ak benn bëtam bu peer bëgg nelawal xale yi mënut ta nekk gis nga sunu yoon bii ku kunu kunu li xam nga sëñ Bass Abdou Khadre dafa toog daal ni yoonu sëñ Touba bii ku bëgg taxaw ci kanamam da lay fël jàll ñu nit foofu la ñu toll ku bëgg sacrifier sunu fii dañ leen di fël jàll dem seen yoon lu kat seen mbay nga baal ma ci saaga bi. ah dagan na dagan na dagan na dagan na dagan na dolli dolli. waa Pastef waa Pastef ay diine da galaa naan cotiser leen cent cinquante euros yooyu yëpp lañ si jóg ay couple si yooyu la ñu nekk di ngoro yoo xale yu jigéen yi di ngoro yoo góor ñaa ngay ngoro yoo nuy couple di xënte ay place man daal fi ne sama xol bee dagg ba jeex waat ci leen ku am looy cotiser jox leen ko activiste yi ngir yàlla sénégalais moo naqari waxal ah, kon parce que sëñ Bass Abdou Khadre nag noonu mu ko waxee ku déglu audio bii ku déglu audio kay foofu teg loolu rek jeexal na wax ñun nag ñoo déggu amuñu imaam amuñu taqwa man Sonko dama ko yërëm wax noonu ñun wax naa noonu ñun si zaahir wax noonu ñun si baatin mais nit ku ñuul moo mel noonu taxaw li pare nanu parewuñu ay tàppet lanu maa ngi coupé ndax am na ñeneen ñu war a nekk si ligne bi borom diine da galaa yooyu na ngeen si wax yéen activiste yi diine da galaa ba nu war a def sa gi yee di fuufale suñu paree dem si si si appartement yeeg si kii di ngoro yoonte loolu lan fi nekkee ay cagalanu mayaat mayaat naa la cinq minutes nga wax ci diine da galaa bi waxal la neex waxal wax ko ca kaw man man diine yow naka la nit ki tëddee hôpital il est que ñu war a xale yi ndax xale yi ñu bëri doomaraam ji delluwul ginnaaw mbër gu delluwul ginnaaw benn yoon ñun ñoo ngi toog Amadou bu su ñëwee bëtam bu pat naan non non pot xaw ma lan article lii est ce que Macky dafa am article moom laa lay wax dama ne la diina da galaa bi dañ siy nekk nee ku nekk kuupale xam na ni fu kuupale am te ay cagalanu suñu jógee sa hôtel yi la ñu jëm ak auberge yaak sa appartement yi nga xam ne sëyunu ñoom ñëpp ay ngoro yoon lan fi nekkee ay cagalanu lan la ñu xëy bay diine dagalaa. moo ma jaaxal dañuy suus. suus bay volet bi ñoom ñëpp man daal man gis nga Pastef lu ma gën a naqari si Pastef a ngi waaye Ousmane yàllaa ko bëgg. ku ci yoonam bi di siiw na Fatia. Habib lii a Habib la ay nitu jomaay fay lanu Habib ak euh, Alioune Sall ay nitu jomaay fay ñooy nekk di def yi ñàkk fayda yi di nelawal nit ñi. Yo la mangi coupé wa salam la ilaha illallah kon yeen Ousmane Sonko famu mu di wor di may leen ma may ma parce que sous gi li dina ci wax Alim Sall nak mu bari ba may nek Pastef ba yor carte pastif ba ba dem ba ñu dajé ben réunion xaw ba ndëkkati ba ma naka ma xol doq bi mu ne ñong rek di ma saf ndodal nak ci laa ne kat bu mag ni Ki, ki kii sama soxla dotuma ñewati tu ñewati yeen pasteur Ousmane famu mu di xifal Yen wa Suisse ngeen ne da ngeen di dina de gala dina de sous karcher sous karcher karcher egal sous mom ngeen di def dina de gala nañ ko gala sen ciot ndey de gala len rek ba pare Ousmane ngi di wor ngeen di Ousmane a ngi di xifal ngeen di dina de gala calling Dina fa yónnee ay cocktail molotov doomu xaraab yi ngeen doon salaamaaleykum doomu salam alaykum. Ousmane nga yi xifal sonu bay beug de gisul ñent ñaari jéegam doomu xaraab yi ngeen di wër di kattante ci Allah bi rek pastif. Aline Sall ak délégation la lobby Acha. Yi waxal Hello. waxal boo paré nga wacc man jéggi la laa soxla jéggi ji ñoo li ma soxla waaw mais jéeg ji laa bëggoon wax solution bu ñu mën a dimbalee kat kooku doomu xaraam man paa yi nga xam ne man maa jëlee sama mission ne maag paa yi keroog maay fil la feer ndey seen xuuri ah xale yi jigéen gis nga xale yi jigéen ñooñu war a dimbali si xeex bi gigi gigi xale yu jigéen yi deewuñu si xeex yi xale yi ñoo dee si xeex bi léegi nag xale yu jigéen yi ëpp si dëkk bi war nañoo mën a dimbali seen tuun yëpp ñu ngi suuf paa yi ay doomeraam lañu paa yi doome ram lañu te paa yi xam nañu xale yu jigéen xam nañu lan la paa yi bëgg paa yi wenn lañu bëgg xale yu jigéen nañu jël seen wenn paccal ko ba mu jóg ci kaw jënd posale jinax diw ci. mbaa du namp daanu. paa bu si namp paa bu si namp katt ndayam daanu. ah. xale yu jigéen ñooñu si war a dimbali. jigi xam nga ne paa yi mënuluñ dara xale yi jigéen yi paa yi amatuñ lu ñu dëgër ñoom namp la ñu bëgg di param seen ah. bopp ko yi ba daanu na xale yi jigéen yi xëcc seen wenni paccal ko ba mu jóg te nga wàcc diw si nday posa di jinax bi te nga wàccee paa yi ci suuf paa yi seen ngaam yi dafa gaaw rës de ku ci ngam pa ci suween bër man nañu ñaf seen man ni man man ngaam yi rësee ñoo ñuy rey de day dagg ci suween jigi ngaam yi rësee ñoo ñuy rey bàyyi ñu écartel paa yi tànk yi rek diw fa dara mar daanu bari mënuñu si dara bu ñu eggaatalee balaa paa yi yëg si daanu nan leen nampal paa yëpp tëgg seen ma doon jigéen paa bi sax parce que paa yi ñoo yàq réew mi. bu ma doon jigéen man maa ko wax fii dinaa ko waxal gis nga frein vélo yi. câble vélo yi dinaa ko wut bu may dee nañ ma suulaale moom yow ma xiyam maa ngi mas ña maa ngi ñas laa si njëkk a commencé naa roccantal ndeyu xuuri ba mu mool ma takk ndeyam ba mu dëgg dëgër uurul ay nii du si am. Mountakha maay xëcc tamit ay xuram dajale ba mu moo takk si nday fil de fer yow ma urul ay nii yu ci am gis nga il faut que se ñi ngi koy waxatee sax ba sa ba sa ñi ngi koy waxatee waaye nu mu tuddati waay jàmmalaa yeeg malika xaw ma maay roccantal nday tamit fil de fer ba mu moo ma takk nday seen xuure gis nga baay il faut que ñu buñ ñu may ñu dund gaa yi du leen may ñu dund gis nga gigi bu ñu waxantee dëgg. stratégie bi stratégie bi mu fi dem joxe loolooy dëgg. jox naa la fi ndafet gis nga ñii ñu jiite. jox naa la kaabul kaabul ñii merci dencal moo ko maa ngi normal dinaa ko récupérer gis nga naa la wax gis nga ñii ñu jiite tant ragaluñ ñu benn côté. wallaay wal azim ñii lay mus a demee foog seen famille yi nekk bañ a nekk si jàmm. wax naa leen ko de. lépp lu ñuy def pour seen famille la ñun suñu ñun ñu ngi rey ñi ngi rey suñu ay mbokk ñi ngi rey suñu ay frère mais ban ministre nga dégg rey nañ fi rakkam wala nañ fi doomam loolu moo tax respecté wuñu ñuy taxaw ci kanamu télé yi di wax lu leen neex mais bu fekkoon seen doom xëy na ñu naan sa doom jam nañu ndeyam mi ngi hôpital dee naag deewul billaay wallaay duñu respecté foog ñu commencé attentat ndey seen kaw. boo paree yéen rek mooy solution bi gars yi ñu may jàmm. yónnee ma sa adresse. comme ça boo dee ma jaxal seen waa kër bi câble bi ma jaxal ko seen waa kër. ak ah, billaay wallaay ku ma ku ma suul te yóbbu ma ndey câble dinaa kat. lii kat dinaa ko indi dinaa ko indi dinaa ko indi.

calling, calling, calling. Salam alaikum. allo Jigi maa ngi ziar bu baax a baax a baax di ziar gars yi nekk ci ligne bi di ziar sénégalais yëpp waa waa man nag fële laay commencé fii fii fii fii soxna si doon wax sànq waa Suisse la xaw gis nga gis nga ñooñu bu fekkente ne am na ay patriote yu nekk Suisse nañ dem kat nday diine de gala bi xaw ma diine de gala la xaw ma diine de ma xaw ma diine jox 24 seet tey ñoom ñëpp Ousmane Sonko mënul nekk ndayam xeex ba tëdd hôpital bay def grève de la faim ngeen ni katt ndayam naan na ngeen def ay dina de gala dañuy katt seen nday lan leen wax katt leen ndayam jël xaalis bi financé booy yi ñu katt nday Macky Sall mu jóge ci bopp réew mi li lan leen wax ngeen naan da ngeen di dina de gala mais yéen ay nit yéen yéen katt leen seen nday waaye yéen ak ay Amadou Ba bëtëm bu ndayam mi mel ni pirate Amadou doomeraam ba pare moom ku wax mu bloqué ku wax mu bloqué yéen na yow naka nga mën a nekkee naan yow leader nga nekk ci kaw nit ñi di dugg di commentaire mënoo muñ lool mais yow yaa raw Macky Sall Amadou Ba Amadou Ba Pastef moo raw nday Macky Sall doomeraam yow mënoon mënoon sax accepter nit ku dugg sa biir kii di ko commenter et puis ay doomeraam yoo xam te ni ku wax rek ku dugg naan dañuy commentaire ay bul wax lii bul bul suivre kii bul seetaan kii bul déglu ko yéen yéen a moom nday nit ñi yéen a moom nday nit ñi ba naan ay bu leen topp ci jeeg bu leen seetaan kii ak ay cin njaay Jim jaay yow ku la dawoon laa la grand boobu ku la respecté woon laa yow mais weddi naa la démb gis naa la da ngay ñëw di di jënd glace parce que barki démb nga fi ñëw attaque fi ton ak Jiji ñu ñëw tontu la te génn fi naan ay noo war ñu ma attaqué war yow yow lu tax yow yaay kan baraan ay bu leen seetaan diok bu leen seetaan kii yow yaay kan yéen bu bu prenez pour kii man xam nga yéen Pastef li ma kat ndayam sauf si yéen mooy da ngeen a ñàpp ndayam yéen yéen a raw sëriñ si ak li ñuy yéen yéen a ko raw ñu kat seen nday ngeen wax ngeen naan ko ay bul seetaan kii bul nit ñi am nañ seen capacité de discernation nit ñi mën nañu mën nañu xoolal seen bopp bi ñuy suivre ak ku ñu warul suivre man du ma wax kenn suivreal diw bul suivre diw nit ñi nañ xool bu leen neex après li leen seen xel may ñu def ko mais lan moo tax ngeen di katt ndey bi yéen yéen moom ñi yéen a jënd correction nit ñi wala lan la seen data ndey waayo ay ay ay ay Amadou Ba Amadou Ba kattal sa ndey fële ak sëriñ yi ak li ñuy xeex yéen a yem seen data nday Ousmane Sonko xeex lañ wax xeex lañ wax Ousmane Sonko dafa xeex ba tëdd hôpital ñu barricade ko këram yéen ngeen ñàpp ndayam fii naan ñu ay article nangam ak ay juge ak ay xawma ak lan waaye merde waaye merde à la fin ban article Macky Sall dafa xam di la xam Macky Sall ba fi nekke ba léegi forcé la fi xam ah, élection yaa ngi nii ñu sommes presque en mois de novembre élection yi février la ba léegi mënuñu jël fiche de parrainage ngeen ñep ndeyam nek fi non yu ay fa dañ xaar lan la ñuy xaar da xaaral am nañ victoire ban victoire lañ am media inter communauté am nañ ni Macky Sall de media international communauté international Macky Sall lañ bëgg mu toog fii katal sanday fële Amadou Ba merde ah ñak jëm yëpp xaaral may leen ma Eh, gis nga waxkat yi pastef yëpp na waxkat patriote yi waxkat yëpp jim jay defena bu ñak jom de am jim jay moo ci gëna ñak jom man moo jim jay duma ko tontu calling xam nga lu tax ko tontu calling xam na ma xam calling calling jim jay calling gora yombu de calling calling jiji ma ñam dakul ci posam de na nga calling na nga de calling <laughs> ma ngi dégg sa wax mi ngi ñëw ñaari yoon seetaanaguma la nag bés bu ma la seetaanee ngay wax ci man dinaa tudd sa tur andi fañ jaar jim jaay dinaa tudd sa tur andi fañu jaar ma nag sa vidéo waaye bés bu ma gisee sa vidéo danaa ko andi teg tudd sa tur jaar indi fañu jaar ak yow jim jaay falaa nag falaa nag bëgguma wax nag bu ñu ñaara ñett dégg attention allo sëñ Jiji leen ay mbaam ngeen ku leen yéeg ngeen doxat ko allo bi xoolal sa waay fi mu daaneel fa laa jëlee Amadou Ba sa waa Pastef fii laa la wax fan la ñu teg ba nit ñi dañoo wax seen xalaat Amadou Ba mooy mooy kan ak kan moo ko yónni ci ñun ba mu ne ñu yéen da ngeen war a toog yéen da ngeen war a déglu ñii bu leen déglu ñee bu leen déglu ñële moom moom mooy kan Amadou Ba te li gën leer mooy borom parti bi mais wax na yàggul ci page facebook am mu wax mu leer nañ mu atté ñok amadou ba ñi nekk ci réew mi téye laminam bi fu ne mu ngangal fa légui dafa changé légui dafa changé profil am miray ba la tudd miray ba né len amadou ba miray ba miray ba mu kat ndayam ni ak bëtam bu peer bu kat da data yaayam bobu boobu noonu lëkkaloo topp ñoom fa def top ah wa pasteur ñoom ñoom bu fekké amul lu ñu wax rek ñun ñoom ana ñu ñoom ana abbas fall ana ana Mayakoor Diouf ana Sadikh Top ana le maire de de de Kër Massar Nord ana ñu. góor ñëpp ngi ci kaso bi. ñëpp daw nañu làkkatu bi ñoom ñooy bokkat yi sëñ na nii xeex bi ñoom ñoo ko téye te ñoom ñoo waroon taxaw ci kanam sëñ na nii individualité moo fi am maanaam yow da ngay wax sa naqar kee wax naqaram. ñu am ko waroon ñëw taxaw boole naqar yooyu yëpp tëgg plan dressé ko ñu ne ñun liñ bi ñu topp dañuy génn ñu xeex ñu manifester par A ou ñooñu ñoo fi nekkoon ñooñu ñoo daw làqatu ji mais man ñee mel man ñi nga kenn xamuma pour ne ni su ma wootee kenn du ñëw parce kenn xamuma mais loolu mooy démocrate yoo xam ne boo waxee ñu ne la mbooloo mooy doole gis nga taawu yeewi askan wi ñoom xalifa ak ñoom ñëpp a fi nekkoon ngeen naan mbooloo mooy doole ñuy yuuxu ñoom xalifa di yuuxu dëmm yi fi ne yëpp mais comprendre leen bañ leen tëggee mbéj ngeen doog a yeewu actuellement ni mbooloo mbooloo mu dëggu bu tuuti bu dëggu moo gën mbooloo mu sakkan yaay booy na nga def waaw salaamaaleykum waaleykum salaam mën naa wax waaw ñu ngi lay ñu waaw maa ngi nuyu ñëpp man daal jiji dama bëgg nit ñi nañu ma bàyyil waa Pastef nañu ma bàyyil waa Pastef te topp yéen activistes yi parce que Pastef gi yow déjà ñun ñi nga xam ne yoruñu carte de membre Pastef ay sympathisant Pastef lañ sax suñu kersa ak suñu gàcce sax may nañu mayuñu ñuy dem di bànneexu ou di def quoi que ce soit ndax mënuñoo xalaat ne Ousmane Sonko mii ñu bëgg muy suñu yaakaaru réew mi ñu jël suñu lépp suñu suñu suñu avenir réew bi jox ko teg ko ci kaw Ousmane Sonko nekk ci grève de la faim yow ngay xalaat naan yaa ngi organiser soirée de gala pour dugal xaalis je ne sais pas où te xaalis bi kenn du ko mës a gis ndax xale yi saa yi ñuy xeex yéen activiste yi ngeen lañu gis waaw nañu ma bàyyil waa Pastef parce que ay jaam moi je crois que ni jaam yi dañ cee bëri Amadou Ba moom man man kooku moom je n'arrive même pas à le regarder il suffit de regarder son visage xam ne c'est un vrai traître kanam gi rek boo ko xoolee xam ne kii kanam moom baam la kanamu traître la tout tous les jours article ça article ça comme ni ko ak na doon waxé sànq rek Sénégal mom moy dëkk bu nga xamné ku dem rek ñu yëkkati la toog ci télé yi lim ñaari article ñepp article nit ñi jël la yëkkati la mais nañu ma bàyyi waa Pastef fi te xeex te xam Ousmane te yëfi le problème comme ni ko maman Astou waxee sànq yëfi du Ousmane Sonko c'est pour l'avenir du pays man sank ba may déglu ci live bi nekk ci yoon bi dama toog ba ci yàgg sama xol bi jeex ma ni ñun ñun ñun Sénégal ñun fan la ñu jëm exactement on ne se rend pas compte les Sénégalais ne se rendent pas compte tant que fekk yooyu kooku di jël di énumérer mais ce pays là c'est quoi ce pays ñun bonne dëkk la ñu nekk jigen ñi moom man dama leen le man sama mbokk jigen ñi te pourtant nak yàgg naa koo wax ñoom xeeb ñoom ñoo ko war a yore ni ko maman su waxee na parents yi génn xale yi ñi xale yi li ñuy def def nañ ko mën na euh, sonn nañu na parents yi génn ah beneen appel bi may lancer yar naa mbokk waa diaspora yi. yorna naa la fi di la ñaan dix mille francs. yorna système système xex pour jigen waaw. tatu nen rek tatu nen rek jarul xëccoo jarul ki tatu nen rek jubali pare. waaw waye waaye ñoo ñu mën ñëpp kay kenn mënu ko ñi ñi nekkul ci sey nañ dem def ci loolu jàpp ji nañ ko def. même sey sax ñu jéeg ji ñu ko. waye sey amatu fi. Ah, eh eh ah. eh. sey fi mu toll nii benn dagaratu ci xam nga lan mo war ku fi jur dom ci jamono yi dom ji suus nga fi andi budé jigen budé gor la carcer lañ ko doy jaru ko dom mom fi nek ni jarul ñu diko ki man ko ko len taatu neen ñu dem waye nak mënuma dem di ndialo yi waaw kenn waxu la nga ndialo taatu neen lañ la wax rek dem palé taatu neen du ndialo d'accord bo ndialo dal ngelaw ngay ndialo ngelaw waaw bu sa na ré mel nga nako ñuusal ngelaw li ah nga ne ko ñuusal ngelaw waaw bu fi andi problème mais en fait ñun comme ni ma tous les jours ku la fi francs limi touti du dara 15 euros la francs wax ku ko ñaan lankal bul ko ko may bu ñu dé sax parce que faut que Sénégal nit ñi dé ak pour ñu sogo a génn ci mbéd mi ni ñoom ñëpp ñu ngi dé mew mu ngi leen que des na sax mew dañ ci dul gis dañ ko dul gis ngeema dëkk dugub sax gis ko problème la lépp cher na ñu nekk fii di ñu bëgg a rey ñun nag ñun ñun diaspora bi côté boobu mooy ñu xeex lépp lu waaye di def nga jox ko activiste yi ñu def li ñuy def te maire yeeg paa yi ñu jóg vraiment il nous emmerde avec ces avec ak marabu yi xam duñ duñ leen woowee marabu yi je ne sais même pas comment les appeler waaw sëñ sëriñ soo sëñ ngëm-ngëm yooyu nañu ko bàyyi ngëm-ngëm yooyu moo tardé Sénégal boo xoolee l'histoire du Sénégal lu tax Sénégal tardé ba léegi